أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ساتان دي تي في كي وقت وي سر إميشيون دين كاني دل سوار ننج دي أندات جين كي بنن نمرو كي إميشيون بي دلين سانت دلين گرم كي ساتان بي دلين نيانا لين نيب نين يو جامو يندوكو فنانكو di ñaanal yàlla ñi feebar tëdd ci kër yi ñi feebar tëdd ci lal hôpital yi yàlla yàlla fëgg bopp yi saafara jàngoro yi lépp luy méttiwaay li ko dalee ci catu kawaru bopp ba ci wewu tànk yàlla yàlla saafara ñépp shifaan laa yugaadiru saqaman wala alaman wala wajaan di ñaanal yàlla mbokk yi nekk ci yoon di tukki yàlla sàmm leen ñu dem ci jàmm fekki jàmm delluwaat ci seen njaboot fekk leen ci jàmm ñu nekk ci xarxat yàlla génne leen ci ñi ci kaso yi yàlla may leen liberté ñu génn fa ak jàmm ànd ak yokkute ñett fa nekk ku tooñ ñu dugal la fa ak ku ñu tooñ dugal la fa ak kuñ juum dugal la fa ñëpp yàlla gis na leen yëg na leen yàlla yàlla génne ñëpp ci barke alquranul karim mbokk yi faatu jiitu ca këru dëgg ka yàlla na yàlla defal leen njéggal defal leen yërmande ñoom ñëpp ñu wax laaya ji Seyda Zeynab di fàttali Seyda Adama Seck sopp ko bëgg ko bañ ko koy dàkkantalee muy yaa layta qawmi yaalamuuna bima xafara li rabbi wa jaalani min al mukramin te kii toog ci sama càmmooñ bi di ko xëccoog moom te mokkagul cof na ci nag waaye des na mer caama moom Seyda Zeynab buñ ko wanee ci RDV wala ñu wane ko ci DTV muy wax alhamdulillah mu ne mana buñ ne yàlla ita xaw mii mu ne mana xam naa daal bëgg na ko dana dikk incha allah dana dikk del xëcc rek bu dakku dikk jërë ngeen jëf mbokk yi ci seetaan bi waxtu wi ci heure bi ci jataay bi baaxoo ngeen daan janoo ci caméra beeg Seyda Zeynab Fall waaye ni mu demee tax mu demee ni mu demee bu demeewuloon ni mu demee du demee ni mu demee daa nekk ci yoon di waajal xaj ngir jëm ca dëkk bu tedd ba di makkatal mukarram ak madinatul munawwar mook sunu ustaas bu yaru bu baax bi ustaas Mouhamed Diop ak mama Mariba ñoom ñëpp ñu ñaanal leen yàlla defal leen xajjan mabruuran wa saayan mashkuuran wa tijaaratan lan tabuura yàlla mën na ko yàlla leen ko defal defal ko mbooleem ñi xaj ñi bàyyeekoo ci réew mi ñi bàyyeekoo ci àdduna bi ñëpp yàlla may leen wér ak kàttan gunu jooxee seen aj équipe bi ngeen baaxoo di àndal ci émission bi teewaat nañ oustaz Mouhamed Diop mi ngi nii toog ci sama loxo ndeyjoor oustaz na nga fanaane alhamdulilah ñu ngi lay ziyaara bu baax maam jaara borom TMC maam jaara ñu ngi lay ziyaara di la dalal ci ndénkaane jërëjëf tey moom TMC dañ koy indi ndénkaane <laughs> incha allah lekkaloog bi lekk ba am accident ci lekk euh, ah ah TMTC maa koy def TMC rek gàttal naa ko de M bee ci manqué ah TM TC ah ñeent ñeent lettre la ah. d'accord su ma juumaatee rek nga jubanti ma ñu ngi lay ziara lekkaloog bi <laughs> sunu tonton Pape Omar Dieng eh, ñëpp namm ko ndax macha allah sama benn mag mm-hmm. mu tudd Ibrahima Ñing moom soppeem nga moom ku ñëw du woote waaye boo ñëwee rek moom mu woo ma eh. ne ma boo bu di géej kon ñu ngi la koy ziaral eh, maa koy nuyu baax ñu dem studio de dellu siwaat ànd ak Modou Mbacke ci li xëy eh, këru yëglekaay yi xëyee moodu Mbacke studio de salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah noir blanc yaa oustaz déggu may arab noir blanc noir blanc nga waxa ah dama noir blanc kon ni ah wala daf ko wala marron la marron blanc la. waaw bokk na ci xanaa de. ah taarikalla. alhamdulilah kon jekkati na. <laughs> suba si. ñu ngi sant yàlla bu baax na nga yeewoo. waaw sant bu wér. yàlla nga yendoo jàmm. amin ñëpp am jàmm. di ñaanal suñu ujaat yi suñu ujaat yi. yàlla defal leen aj guñ nangu. amin tabaarakàlla yaa Seyda ak oustaz Mouhamed. incha allah. tabaarakàlla jërëjëf. këru yëglekaay yi lan la ñu yeewoo. waaw lu ñu yeewoo bokk na ci source a xëy na ko nee na bëcc coow li am ci biir coalition benn Bokk Yaakaar waaye itam parti bi nga xamoo di APR yëglekaay bi nee na militant wu ya nekk ca Espagne seen xool jeex na tàkk lu ko indi mooy président Macky Sall moo nommé ku ñuy wax Demba Dia Demba Dia kat nee ñu frère Arona ab commerçant la woon bu nekkoon ca euh, Togo moom mi tey nekkoon ca Congo moom la président Macky Sall jël daal koy nommé vice consul ca Espagne li mot tax waa APR Espagne xundu ndax ñoom daal jàpp na ni ñàkk leen jox gëddëm ñàkk leen a warmaal ñàkk leen a faale moo tax mu def lu mel nii ndax bu fekkente ni daa bëgg a nommer vice consul am na ñu nekk Espagne doon ay doomu réew mi am xam-xam bi am man-man bi kon dem di jëli ab commerçant ndax mbokkum sa xarit dong la da nga bëgg koo nommer vice consul ñu ko nangum yéen kaay bi xëy na ko xët gu yaatu yaatu taaz yëgle kaay tam beneen xëyee ñàkk xool bi am ci biir Sénégal kay bi seq wax tane professeur Issa Sall moo jiite PUR candidat à l'élection présidentielle 2019 Issa Sall nee fim toll ni de réew fim fi mu toll ëpp na danaka kumba am nday ak kumba amut nday mo dox ci biir Sénégal ku wax ñu door bu fekkee farul ak président Macky Sall ku far ak président Macky Sall moom defal lo neex de muju fenn Issa Sall mom élargi bi nee Li mo am ci biir réew mi ca lu gën ca nak am réew mi dox démocratie cote moko ko sam a sàmm ca fii Sénégal toll fa mu jëm ndox amu fa les écoles moom it ba beneen mbir boo xam te ne bi dugg na indi na coow ci réew mi léeg kaay bi nee na am na benn njombe bu am benn waay ngi nii di ab moodu moodu jóge woon Angleterre ñëwoon ca Parcelles Assainies di Issa Sané Issa Sané moomee dañu koo dër boobu ñàkk bakkanam lu ko indi mooy moom ci boppam daal da doon ngonal ci guddi gi ay deux heures du matin ngonal ga mujjee ëpp ba coow la bari lool di neex mujj nag ci xeexee ak groupe bu ndaw ndaw ñu nag dañ ko faat ba noppi dugg ci mbooy gi nangin riir yi kenn xamugul fun du kaw ak suuf waa ji nag benn mag bu doon dox moo ko for ci mbedd mi fekk am néewam di jëlaa ñoom yëglekaay bi xëy na ko waaye tam yokk na ci ko ne wax Mamadou Souare Mamadou Souare mii kat Mamadou Soumaré da doon dem ci ambassade bu France daal di falsifier li nga xam mooy signature Serigne Bass Mbacké Abdoul Khadir yooyu kàddu yoonu murid doon fal ñaan ay visa ba visa yi baree ba bare 2007 ak léegi jot na faa jële cinquante visa lu mel moo tax Cheikh Bass porté na ko plainte ba yoon teg na ko loxo moom mi nga signature yëgle kaay tur bi moom itam xëye beneen wàll dafa xëyem tolluwaayu réew mi ci beneen anam njiitum réewum Sénégal président Macky Sall dafa mel ni daal mi ngi am ay candidat yooyu wala ñooñ ci biir réew mi mu ngi leen di fàkkal am ñoo xam fu ñu ngi mu dóor yéene kaay tur bi xëyee ko jox kàddu gi ki nga xam rek mooy euh, kii di Cheikh bu Diop ma ngay jàngat ak a naqarlu lan def Bougane Gueye Dany njiitu gëm sa bopp moom mi bëggoon a def ab xumb xumb ci Grand Noël moom itam ñëwaat na ca la xew ca Parcelles Assainies Sané Modou Modou bi ñàkk bakkanam vox pop ngir jeexal ñëw na ba tey ci Cheikh Bamba Dièye moom mi nga xam te ni bi mu ngi ci opposition bi jëbal na kàddoom ñaaw loolu li am ci biir réew mi Bamba Dièye jàpp na ne fi ñu toll di tembe Sénégal moom ni ko président Macky Sall yàq ëpp na ba mu tàmbaleeg léegi ndox amul njàng amul fajo amul wér gi hôpitaux yi feebar nañu lool ambulance yi doy amul plan Sénégal émergent mujj naa soppeeku plan loolu lépp daal toj na ko faram-fàcce ko jàpp ne ni réew mi moom mi ngi sooxeem yëglekaay bi nag yëmu ca ñëwaat na ci beneen mbir bu xew ci réew mi ci beneen mbir wopp yu bari yu am ci biir réew mi hépatite B law na lool yëglekaay bi nee ñaari million ak juróom-ñetti téeméeri ci ay million ci ay doomu am nañu li nga xam rek moom mooy jàngoro boobu nga xam si mooy Tapha Tine di lembe ci rewmi yegle kay bi jeexale tàggat yaram eum sen roi des arènes bu bes bi dekk ci Pikine yegle kay bi ginnaw fuk ak juróom ben mohammed Ndao tayson la won tay ji nak tay Shinga mo yore roi des arènes bi dan barki dem Bombardier djel bu rëy ca gaaw Youngstars jërëjëf Modou mbake ñun mom yaay sunu roi des arènes ci revue de presse. non man yaay sama roi des <laughs> ma sha allah tawarakallah <laughs> tabarakallah yàlla jërëjëf ñu yendo jamm ñu yendoo jàmm jërëjëf tabarakallah jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. Modou Mbacke la woon ci li këru yëglekaay yeewoo ñu sant ko gërëm ko macha allah ci njàng mu leer mi Oustaz Mouhamed Diop ñu ngi lay ziyaarawaat encore une fois. ñu delloo ziar Seydou këru yëglekaay yaa ngoog. waaw alhamdulilah maa ngi sant borom bi di julli ci yonentam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñi bokkal plateau bi soxna jaara sunu yaay Mère Thiam tonton Omar ak euh, mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñooy safoo télé bi ci waxtu wi nii. Euh, yëglekaay yi euh, coow politique bëri na ci mais li may wax rek moo xam ci wàllu kumba am ndey ak kumba amul ndey ak wàllu ki ñu nommé frère Arouna Diaby certes nit bu jiitee moom mooy xool ku ko neex mu nommé ko ak ki mu wóolu mu mu ko mais des na ko moytuloo mbir mi mu doon mu bañ a doon lu ñuy cërale ay nit mais mu doon lu nit mérité parce que bis bu réew mi demee ba ñu jàpp ko ay cër yu ñuy cërale ay nit bu boobaa ku nekk day jàpp ne am na lum ca moom luñ ko war parce que kenn gënu koo yeyoo mais bu fekkente ne mérite la bu boobaa euh, nit ku nekk dafay yokk góor góor lu pour bis jot mu mérite loolu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo jàngaloon mu ne إذا أسند الأمر إلى غير أهلها فانتظر الساعة بس بولن بس بجامنا دي دخنين جسني أو مدير دنكوي responsabilité dañ koy dénk ku ko méritewul xam leen ne àllaaxira léegi mu jot mhm. parce que du ñu jug ci def ay kawtif yoo xamante ne dafay sabab meruk borom bi subhaanahu wa mhm. beneen bi tamit mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey mhm. loolu bokk na ci li jural am réew kawtéef xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ci benn xadis ne bokk na ci li alakoon ñi leen jiitu woon moo di ne ku ñuy tuddee asharif ku noobul bu defaan dara kenn du ko dañ koy bàyyi mais maanaam ku féetew pouvoir bi bu defee dara dañ koy bàyyi ku féetewul ak pouvoir bu defee dara ñu ñu ñu condamné ko yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne bokk na ci li alagoon waa banu israil mooy lool te xam nga banu israil kuy jàng alxuraan da ngay xam ne ñoom yàlla subhaanahu wa taala wa atayna al xukma wal ñoom yàlla da leen a loon li nga xamante ne mooy gouverner ak an nubuwa parce que ay royaume yu bëri ci histoire ci ñoom la doon jóge yonent yu bëri ci ñoom la doon jóge kon li taxoon ñu ñu perte mbir yooyu teraanga yooyu moo di ne wuñu woon kon sunu Sénégal gi tamit bu ñu bëggee li fi nekk sax fi faw ñuy jiite di di di yemale mm-hmm. beneen bi tamit mooy ne nit ñi sonn nañ mm-hmm. ci wàllu ñàkkuk ndox mi lool lool bu njëkk ba parcelle lañ doon wax mais léegi dafa law ba ci li nga xamante ne mooy banlieue bi am na ay gox yoo xamante ne ak ay cité yoo xamante ne mhm. gëj nañoo am am ndox mhm. Mhm. Euh, yal na yàlla def jàmm ci Sénégal mais baadoole yi sonn nañ dëgg la yal nañ yàlla doole taxaw dëgg la jërëjëf jërëjëf Oustaz Mouhamed ñun ñi nga xam ne rek dañoo dëkkee fu pant daan am ndox tey xëy na ñàkk ndox <laughs> nee naa ñun moom buñ ñàkkee ndox moom ñeneen ñi moom xaw ma fuñ jëm. dëgg la yàlla saafara yëpp. lenn li ci wàllu état bi la lenn li ci wàllu sunu borom la. Mm-hmm. ndax robinet yi xelliwul asamaan si tawul. Mm-hmm. <laughs> doy na war maam jaara këru yëglekaay yaa ngoog loo ciy jàngat. waaw Oustaz Makhtar. Mm-hmm. damay dellu di nuyuwaat eh, ñi ma fekk si plateau bi. di rafetlu invitation bi bu baax a baax. Euh, euh, yëglekaay yi nag li ma ci jàngat mooy euh, comme niñ koy waxee rek loo est indispensable à la vie te ndox nekk na loo xam ne instant yi ñëpp la laal secteur yëpp la laal dafa dafa métti trop ñàkkum ndox mi kon nag ku ne li ñu ci war a liggéey rek na ko ci liggéey su ko defee ñi ñi mën a jotaa ndox ndax ndox nit kenn mënul dund sans ndox nit mun nga dund sans électricité garaawul mais ndox nit mënul dund si ginnaaw ndox. Mhm. kon nañu nañu béy seen waar ci wàllu woowu. Mhm. Euh, ndax ndox bokk na ci liy doxal am réew. Mhm. kon nañ bay seen waar ci wàllu woowu. Euh, beneen bi may wax mooy euh, rakku Arouna Dia boobu ñu fale fële ca Espagne comme ni ko Oustaz Mohamed waxee rek dañu ku ne li nga mérité moom dañ la war a jox l'homme qu'il faut à la place qu'il faut kon ku ne fa nga war a toog buñ la ko joxee rek du am problème. ku ne sa sa capacité fo lo rek nga mën a nga mën doxale tay tey mënoo jël mam jaara jox ko micro ne ko na woy du mu sa woy parce que xam ko du domaine am kon nit ki li muy domaine li domaine am nañ ko ko jox rek euh ah, benen bi may wax moy ci walum politique bi xam nga euh, bu ñëk dañu daan def euh, politique saine une politique saine parce que ay jeunes yi dynamique dañ daan tok nan rien pour moi hmm. tout pour mon pays et sa jeunesse rien pour moi mooy dara man bu ma am dara. tout pour mon pays et jeunesse lépp lu ma war a am rek na ko sama réew am ak ay ndawam. léegi yow boo nekkee ndaw bokk ci réew mi lu sa réew am di ci di nga am parce que yow sa réew dafa war a am ak ay ndawam. mais léegi dañ jàpp ne tout pour mois rien pour mon pays et jeunesse. maanaam man daal naa am lépp sama réew ak ndawam moom garaawul man daal naa am. kon nañ nañu jàngaat. il faut ñu jàngaat xoolaat ku ne. nan lan mooy lan nga nan nga war a tëddee ci biir réew mi nan nga war a doxalee parce que réew mi président kese mënu koo doxal ñun ñëpp ñoo ko bokk kon ku ne fa nga war a jàpp. jàpp fa mu daal di mu daal di dox. macha allah soo laa amoon ci am na solo am na solo jàngat bi ak leçon yëpp jërëjëf ñu sant la bu baax a baax maam Diarra gërëm la euh, lekkaloot bi. man de damaa xamul lu tax euh, journal yi. tiitiree wuñ la tey. ah li nga fi def yëpp. lekk fër euh, semaine. loolu xanaa xëy na xanaa suba suba journal yi faaw ñu ñëw ci moom. Ah, na nga yeewoo man si siiw moom moo tax siiw ma di. yow mii kese président moo siiw ak aaroon na di ñoo siiw di ñu siiw. yow maire Thiam <laughs> waaw. waaye keroog mooy bi may faju di keroog maa ngi dégg ko eh, maire bi moo feebar maire bi wax affaire ci tele bi maire bu garaaw baa ngi nee moo feebar. ma ne merci maa ngi leen ñëpp yow la ñuy laajte nag maa ngi leen nuyu ñu ne da ngaa wéetal ndénkaane sama doom di ma yaa uyu Moussa Matar nee na nga mm. tane ma ne ko du ma tane sax waaye waaye seet bi ñëwul de lan si seet bi ah maa ngi tëdd rek mais ngeen kii ah loxo bi loxo bi ngay dóoree loxo bi day métti waaw waaw bàyyil dóor yi dóor nga ba loxo bi métti maa ngi lay ziar mi <laughs> nuyu doom bu góor ana sama ana sama goro yi ñu ngi fa yëbbatu la dara ci man. li nuy soxna jaar buso ak tonton man leen ma jaaxal man ndox mi du ci waxaat ndax moom kenn du nañ wax leneen. léegi moom am nga ndox moom. awuma de aw ma du ma ci waxati wax nañ ba sonn nee naa maki maki dàqal kii bu bañ am na ku ko wax tey ma ci waxaat de waaye ki falsifié signature suñu sëriñ bii. <laughs> waaw kooku tamit de. kooku de mën lañ ko war a indil. <laughs> sëñ Bass Abdou Khadre. 2007 la ñu wax ba léegi ah. di di ma ne xanaa waaw ma ne dañoo juum. Ah, yàgg na ndax xoolal Ousama Tall 2007 ñu ngi si ban weer ngi si ban at. 2018 mu ñaata at. 11 11. mu jël ci xaa muy. fukki at ak benn. ma ne yàlla naa mën a falsifier rek. numéro kii. signature président ko ñu xam léppay dëgg. ah kooku laa bëgg a ah. waxuñ 50 visa. waaw 50 visa. 5 ñooñu ñëpp tukki nañu. visa kay ku ko am nag doo dem Jalla. man yàlla na ma yàlla dimbali ma mën a imiter rek signature président man wutuma ñi président naa ko am. wala ñoom aaroon da jañi non c'est que mbàkki mbàkki yi dañuy kii seen. signature non boobu risque la boobu risque. du risque kat sëñ bi Abdou Khadre ku a def na onze ans waaye yow onze jours sax doo ko def boobu ah. <laughs> man naa ci am ñaari fan yu ma ko mën a kii rek ci xam ci laay dugg ci compte jël lépp ñoo toog <laughs> waxtaan wax ji jeex am déet man de Ousseyn mën fi ñu jëlee visa yeeg yooyu ñooñu xanaa xamuñu ne lii du signature am wala ñoom jànguñu loolu <laughs> mais réew mi nag loolu doy na waar aussi mm. réew na waar am na loo xam ne foofu ñun daal ñu ngi fay suñu bopp mm-hmm. suñu réew bi ñu ngi koy fawe mm-hmm. signature u nga mën ko imiter di si jël ay visa ba am cinquante visa mm-hmm. ba tey muy doog a feeñ ñii liggéeyuñu liggéeyuñu de xaw ma président mi ngi liggéey man daal yàlla naa mën a imiter sa signature yow na boobu moom laalewul ak président loolu moom ah su ma mënoon su ma falsifier signature def ok non ma ne bii moom bu cas bi laalewul ak président. moom diggante waaw moo tax ma ña nekk foofu liggéeyuñu. ko rek ñëw ñu seen ñëw rek signé ñëw jël ñu bi te xamoo ni kii du man. Hmm? Ousama Mata amuloo dañ koy doxal di teg ko ci ay charte yu leer di. Hmm. kon nag bu yëg man de aw ma signature man li may signé kenn du ko xam sax. <laughs> ndax sama juróom sama 3000 yi ne fekk ak compte ba laa ko ko jël di. <laughs> ko jël fu jël. <laughs> jërëjëf jërëjëf Mère Thiam ñu sant ko bu baax gërëm ko macha allah moom dañ koy namm euh, Sani Ndiaye. <laughs> Sani Ndiaye ñu ngi ziar bu baax. Euh, maa ngi delloo ziar baax. lan nga jàngat ci li këru yëglekaay yi xëyee. damay jëkk wax ne am naa mbégte ñëwaat ci plateau bi. Mhm. wax dëgg yàlla namm naa leen trop. Mhm. waaw euh, sama jàngat nag dafay jëkk a dem ci nomination wu frère Arona Diaby. Euh, euh, euh, dëgg la nag wax dëgg yàlla loolu jëkkewul ci président Macky Sall taxit na mën naa ba ñu mujjee ci ñoom parce que li ñuy fale la ñun damay wax ne tant que ñoo ngi am président boo xam ne parti moo koy fal rek ah, bu faloo alakuli ali il faut mu bégal parti ba kenn mënu ci dara hmm. waa APR yi nekk Espagne ñu ngi yëngatu nag waaye jàpp naa ne aussi xëy na mbiru politique la seen droit la ñàkkul ni ñoom amoon na ku ñu bëggoon ñu fal ko faluñu ko ñu am yëngatu yëngatu mais nag dañu xam itam ni man awma ci benn jaxle falu ñu malien falu ñu ivoirien yóbbu ñu fa ab gambien ab sénégalais la ñu yóbbu mu nekk vice consul kon kii la doon wala kële la waroon doon loolu moom defe naa appréciation président la def na ko mm-hmm. nañ ko jàppale mu liggéey Sénégal jëm kanam mm-hmm. loolu beneen bi euh, damay ñëw ci combat wu Eumeu Sène ak euh, roi des arènes mm-hmm. de combat bi sax en tant que combat peut-être moom ay intéressé mais dafa am déclaration mu def boo xam ne dafa am jàngat bu mu ci def parce que dafa wax ni yaayam waxoon na ko bu mu tëddee ci lalu feebar ci lalu de ni ko di nga mën nekk mës a nekk roi des arènes euh, ci drapeau chef de l'état euh, loolu réaliser wu na ma bëgg ndaw yi bàyyi xel euh, ci wayjur hmm. ndax xam nga wayjur dafa am taxawaay ci doom boo xam ne dafa am solo defe naa ni yenn ñu jàngal ni hmm. àjjana yi nit mu ci suufu tànku ndeyam kon àddunaam nag defe naa ni doon na ko gën a yomb kon hmm. kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax loolu rek moo ma ci intéressé ñu xam ni yaay boo ko teralee ala kulli alin il faut que yàlla teral la. beneen bi mu ngi jëm ci émigré bi ñëw vacances. parcelle parcelle. doon ngonnal ci niñ ko waxee. affaire ba dérapé ba bakkanam denc. defe naa loolu tamit nit ñu war nañ ci jànge lu bëree bëri sama xel dafa dikk ci lu olof di wax ni neex ngonnal xam fooy fanaa ni moo ko gën. loolu lañ ca jublu woon lu mel nii la nga nekk di ca def. war nga xalaat moment ba nga ca nekkee lan moo la ca mën a fekk. détaillé wuñu nag. waaye xam naa ne dérapage bu en général su amee rek am na lu koy indi. kon nit daal war na fekk boppam rawatina ci boo xam dafa nekk kilifa am ak njaboot yu nekk ci gannaawam ba buy nekk ci dara moo xam naka la cay nekk su ca génne itam mën caa génn ak bakkanam. mën caa génn ak wiram. Euh, loolu daal moo nekkoon solo. am na solo am na solo jërëjëf euh, Dieng ñu sant la bu baax gërëm la. dañuy dem rek seetaani benn euh, élément dellusiwaat ci plateau bi. Euh, vous êtes pour donner la parole à la diversité des opinions Ni, euh, ni l'un ni l'autre. Vous savez pourquoi hmm. Parce que les trains qui arrivent à retard, moi, ça ne m'intéresse pas. Hmm. Ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour que le train arrive à l'heure. Alors, vous êtes un exemple atypique, Ben Bass. On va sortir de cet entretien avec ça. Il y a des millions de jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui. Télésud est diffusé sur quatre continents. C'est un potentiel de 150 millions de téléspectateurs orientés vers les 30 juillet 2013 30 juillet 2018 boobaak léegi juróomi at bi jëmm ji ñu seetaan léegi ci vidéo bi làqoog léegi mooy kan Ben Bass Diagne Ben Bass jaañ ki am idée wu taxawal Excaf di groupe bu làmboo yu bari Ben Bass jaañ ki am xalaatu taxawal mahadul hamdi wa sukuri la ñu koy wax école rajo Dunia Ben baas jaañ rajo Dunia Ben baas Diagne RDV ñaar yooyu ñoo jur euh, kii judd ci ginnaawam di DTV di doomu télé bi ak rajo bi Oustaz Mouhamed Diop ndax xamoon nga Ben baas jaañ ak lan nga mën a seede ci moom euh, xam-xam jëmm ni yàlla musul dogal sama gisanteeg moom mais xam kom ni nga wax ne xam naa ko ngir dégg-dégg yoo xam ne da koy am ci moom loolu lu nit xam na mm-hmm. man fi ma njëkkee déggee turu benn base mooy ci jàkka tabax jàkka euh, je pense que ni am na ay jàkka yu bëri yoo xamante ni moom mooy ki nga xamante ne moo ko tabax falaa njëkk déggee turam ci benn jàkka bu soriwul sunu koñ ñu ne benn baas moo ko moo ko moo ko tabax euh, di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne ku tabaxal yàlla lu tol ni ngunu ginaar ci néeg ku tabaxal yàlla néeg bu tol ni ngunu ginaar yàlla tabaxal la néeg ci aljana yàlla na ko yàlla bu mu rëcc la mu doon tabaxal yàlla subhaanahu wa taala ci ci ay néeg waxuma rek euh, li jëm ci wàllu woowu mais tamit am na yeneeni mbir yoo xamante ne euh, grâce à moom ci la am ci Sénégal mooy tey jii nii euh, alhamdulilah FM muy rajo alquran nga xam ne nit ki da koy déglu alquran di ci nafar loolu rek mu nekk ay tuyaaba yu bëri yàlla na ko ko yàlla subhaanahu wa taala jottali na suuf oyof ci ci kawam ay mbaaxam di ko fekk si foofu Mm-hmm. mais bu dee xam moom maa ngi doog gis image. Uh-huh, <laughs> benn baax <laughs> yàlla def ma bindee sobuma yenn uh-huh. yenn sob <laughs> même Jupiter keroog laa lay doog a xàmmee Jupiter. ndeysaan mais xamu xamuma ko xamuma ko. Uh-huh, allah jërëjëf uh, Oustaz Mouhamed ñu sant ko bu baax gërëm ko. maam jaara uh, xamoon nga benn baas ak loo mën a témoigner ci moom. waaw Oustaz Matar. Uh, man nag. benn baas jotuma koo xam. Mhm. mais comme li may wax rek naan yàlla amul hasard ndax li may wax nii yàlla laa koy seddeel mhm. mënuma koo seedeel nit. Mhm. man benn baas musuma ko gis. mais ñun dañoo amoon benn groupe xale boo xam ne dañ daan defar ay doom wala ñu jënd ay doom. doomu fowukaay yi. ku ne da wax sama doom kii laa ko tuddee. ñu ma ne man sama doom benn baas laa ko tuddee. boobu benn baas musuma ko gis sax nag. lu waral loolu. xam nga xëy na yàlla moo ko def. Mm. parce que man turam bi ma ko njëkkee dégg xam nga xol bi dafa sedd. Mm-hmm. ma ne sama yaay sama yaay ak may seetaan te yàlla laay seedeel. Mm-hmm. ma ne man man benn baas man benn baas laa bëgg a gis. Mm-hmm. musuma xam ne sax RDV fii la féete. su ko defee ñu naan da ngay dem RDV mais musuma ñëw. RDV pour gis benn baas mais xam naa ne loolu mbëggeel bu yàlla jëloon def sama xol la suñu waxee rek man le man sama doom benn baas laa ko tuddee man sama amee doom bu góor baas laa koy tuddee mhm. te suma ko gis benn baas rul si télé te jour bi mu décédé mhm. laa dégg Ibrahima Diagne benn baas mu ma fekk Thiès mhm. dafa décédé man lii kii moom mbaa sama benn baas ba après ñu ne ma waa benn baas boobu la ma am nag vraiment affaire bi kii ma jàpp ma nag mais musuma ko gis waaye wallaahi turam sax su ma ko déggee sama xol day neex xëy na loolu yàlla moo ko def mënu xaw xaw xaw ma sax nu ma koy expliquer. Mhm. su ma ko déggee turam rek su ma ko déggee sama xol day neex te mosuma koo gis. Mhm. moo tax bi ma ñëwee liggéey fii Excaf damay lii du hasard. ndax man dama yàggoon bëgg télé. bëgg mhm. liggéey télé. moo nekkoon sama rêve. même dañ daan bu ñu nekkaan école di jàng sax bu ñu paree demee kaay ñu def émission. <laughs> <laughs> kaay ñu def émission mais bi ma yàlla àndee Excaf. dama xam ne. du hasard mhm. ndax man ben bass mom suma ma turam sax sama xol day neex yàlla xam na ko te musuma ko gis mhm. deug la jërëjëf mam Diarra loolu am na solo ñu sant ko bu baax gërëm ko euh, mère chama mhm. euh, xamone nga ben bass ak lo meuna sédé ci mom tay la am juromi at ci bir souf amna na wax dëgg yàlla man xawmako mais dama doon dégg ndax dama am kuma xam Mamour Dieng mu demoon ben deuk man dama koy fréquenter mu may dégg Mamour mu ne dafa am góor gu ñëw woon si atelier ni ko ñun de suñu dëkk bi dañ tabax jàkk ba pare mais amuñu ay rajo maa ma ko tel de mu ne ko amuñu ay rajo mu ne ko léegi da ngay dem fii RDV boo demee nga laajte ku ñu wax benn baas Diagne nee na mu ne ko ah Ndakaaru de boo demee di laaj diw duñ la farataal mu ne ko essayel rek soo demee laajte ko mu ne ko laajte ko noonu la mu ne ko kaay ma bindal la kayit nee na mu bind la ko kayit muy dem. maamu ne ko kañ la ma déposé la nee na maamu ne dañ jàdd fii rek gis euh, ndem si yàlla si ji mu ne ko kële mooy benn baas mu dem di ko jox këyit gi mu jox ko ko mu liir ko mu ne ko waa jërëjëf demal nee na mu dem dem lu yàgg-yàgg ñu toog benn jur seen dëkk rek oto ñëw daa ci defar kii rajo yi def rajo yi nee na boobu temps téléphone yi bëri mu déparé waat dëkk ñëw mu ne ko maamul nguur si de indi na fa ay rajo waaye damaa bëgg dem pour wax ko jërëjëf te gisuma ko. Mm-hmm. mu ne ko comme gisoo ko wax ko jërëjëf bindaatal këy rek nga bàyyi foofu nga dem waaye moom sax loolu farata moom bay def ndax yàlla. Mm-hmm. te li ma dégg tamit damay gis ñu ay foofu alhamdulilah la. Mm-hmm. gisoon naa aussi ay maire yoo xam ne mën daan gis ñuy génn ma ne waaye maire di kol fu ñu jóg ñu ne dañuy jàng fii si benn école boo xam ne benn baas moo ko fa dañuy jàng te kenn du fay. ba sama benn tante mu ne ma tee ngaa dem foofu ngay jàng ma ne ko moom. man damaa taal ay jàng man may dem ci xew ñu ne ma ngay dem fii te kenn fay ku ñuy wax benn baas jaañ moo ko fa moo ko fay def mm-hmm. man loolu laa xam mm-hmm. ak ak téere yi ñu doon joxe am na ay kaamir mm-hmm. yu doon maye ma dem sama kër benn xale mu ne ma lii de ku ñuy wax benn baas jaañ moo koy maye te gratis di nga ci jàng xam ci sa diine man loolu de wax dëgg yàlla loolu laa xam ci moom ak jàkk yi mu tabax jaañ ma seer nit ku baax macha loolu rafet na euh, saa nijaay mm-hmm. <laughs> Dieng lan ngay lan ngay seede ci euh, Ben Bass Diagne ah. ndax xamoon nga ko tamit waa bu fekkee ne nag xam ko ci dëmb nii rek mësuma mm-hmm. ko gis mm-hmm. euh, defe naa ne comme lu bari ci ñun waaye loolu rek dama ci def jàngat bu am solo que ni ñun ñuy toog fi yëpp ku wax ñu ne mosuñu ko gis waaye kenn waxul ni mësuma ko dégg te ñu wax it nag ñu ci la mos a ci lu baax lañ ko dégg Oustaz Makhtar suma xel dafa dem ci benn adage boo xam ne léeg-léeg nga koy dégg waaye boo ko dundee rek ki koy gën a gëm euh, Birago Diop dafa xool lee les morts ne sont pas euh, lu naqaree dégg la mais defe naa tey euh, dégg naa ko ndax ñoo ngi wane nataalu ko fi jóge ëpp na juróomi at waaye mu wax kàdd goo xam ne gi man dama ci jàng lu bëree bare bëri danañu wan itam kan moo doon benn baas mu wax ni moom du bàyyi xel ki tardé ba noppi <coughs> du bàyyi xel terrain bi tardé ba noppi maanaam li tardé li muy bàyyi xel mooy kii wàcc moom lay fexee góorgóorlu ba ko du tardé mu nekk jàngat bu am solo euh, boo xam ne képp ku nga xam ne yàlla jox na la responsabilité rek nga commencé ko ci waajur sax di yar wala nga yore am réew nga bàyyi ci xel loolu lu am solo la. Mm-hmm. Euh, beneen bi itam defe naa ni yàlla nañu yàlla taas ci barkeem la ñuy wax. Mm-hmm. ndax wax na ni nit su génnee àdduna ñettam du dagg. Euh, bokk na ci euh, euh, def fi loo xam ni dafay nekk njariñal doomu aadama yi. Mm-hmm. te defe naa ne escaf ak li mu ëmb lépp bu ko taxawalee te ab jullit mënta am lu gën a rëy ci moom fu muy fàggoo lu lew lu mu sàmmee diina ak ngorom te yéen yi fi nekk ñëpp kenn ku ci nekk xëy na di fi forcé wërsëg te nee nga mosoo ko sax gis loolu yàlla na ko yàlla fay. bàyyi na fi itam. doom ju baax bokk na ci yi dul dagg mhm. Jupiter mosuma ko gis mhm. waaye maa ngi koy dégg te yama daan dégg ay baayam mhm. kon mu jëwut puso bi mu réer kon yal na yàlla xaar ko àjjana amiin yaa rabbal euh, jéggal ko ay bàkkaaram amiin euh, amiin lépp lu mu defoon ci lu baax itam yal na fekk amiin fi bàyyi gannaaw itam ko yàlla sàmm amiin yaa rabbal jërëjëf euh, xam naa ci benn côté ñi toog ci plateau bi yëpp maa leen ko ëppee sens mooy mas mm. naa ko gis wala gis naa ko sax gisati ko <laughs> toog nañ tamit ku bëggoon débat la toog nañ mu posé ma question ci ay

ku leen yoreel bor ne leen xaar leen bala trent da leen di nax benn baas la 28 lay fay. Mm. ci rajo bi la daan toog moom wax ko ñëpp dégg ko. Mm. moom la 28 bu jotee la 29 moom du ko kii te fay lu dul fay na ñëpp. Mm-hmm. seen salaire. Mm-hmm. loolu bokk na ci liñ ko mën a seedeel muy lu jafe. Mm-hmm. mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni utul ajira ajirahu qabla an yajifa araqahu ki leen di liggéeyal jox leen ko euh, àqam. balaa ñaqam di fendi moom nag ku fonkoon. salaire u ñi nga xam ne ñoo koy liggéeyal la dégg naa ci mudir Cheikh Ahmed Tidiane bi tey mu ne li mu tabax ci jumaa ki jàkka buñ ko doon xayma war naa ma téeméer loolu mooy dëggal li nga xam ne moom la euh, oustaz Mouhamed wax mhm. euh, may tamit mooy wax tamit ne noonu tamit la ko doon defalee suñ mbokku chrétiens yi ci tabaxal leen ay église mhm. Mhm. loolu pour wane ne mbaax gi yemale ko woon rek ci jullit ñi mais ci nit ñëpp la ko doon jëmale beneen bi tamit euh, école bi ngay wax muy mahadul hamdi wa shukri lillah école bi yàgg na fi su ma juumul ñaar fukki at yi léegi mu mat wala mat na ko kenn mosu fee ñëw di jàng si di fay benn dërëm mhm. te lu mu néew néew téeméeri élève ñu ngi fi mhm. te ba léegi école bi njabootam ñu ngi koy wéyal jël ko en charge mhm. bëri nañu fi jàngee ba am seeni diplôme te fayuñu benn dërëm man ci wàllu informatique ni ñuy tàppee woo dëgg yooyu noonu ci ana en maa ngi ko jàngee ci ñoom oustaz Alpha te lépp ordinateur yi moo koy jënd mooy fay ña fay jàngale ñuy jàng ba am sunuy diplôme mhm. man ci sama côté bopp rek suñ placement fa classement fa gënoon a nilaar quatrième laa jëloon bokk ak ñi nga xam ne ñi ngi jàng ci yeneen i matière comme ni nga ko waxee am na groupe boo xam ni ngoon la ñuy ñëw di ay mag ñoom Oustaz Khadim Gueye di leen jàngal heure timis mhm. te loolu yëpp moom moo ko jëloon en charge journée bi nga xam ne ñu ngi koy woote muy journée sant yàlla ci mm-hmm. dundam la amoon initiative boobu mm-hmm. mooy bi ñuy def stade Maris Ndiaye journée boo xam ne dañuy dajaloo waxtaane diine pare def salaatu tasbih ñaan ñu joxe ay cadeau nit ñi ñibbi loolu lenn la rek ci ay mbaax yoo xam ne nii man nañ ko ko seedeel moom jëmm ji nga xam ne bàyyeekoo na fi benn wax rek laay daanale bu benn mbokk mosoon a wax ku dëkkoon gunaas buñ dajewaan da daan wax ni léeg sax daan woote ci rajo bi di ko wax ne benn baas mii daal benn baas lañ amagum parce que bu ñu amee téeméeri baas Sénégal gépp daj <laughs> loolu la daan wax ndax njëriñam macha allah kon ñu ñaanal ko yàlla fa mu tëdd jëf jëf ju baax jim doon def di ko def ci jaam ñi ndaw ñi nga xam ne tey gannaaw yàlla moom moo tax ñu xam seen diine waxuma sax école bi mais rajo bi rajo dunia ñaata nit la rajo dunia gindi ñaata nit la rajo Dunia jàngal. ñaata nit la rajo Dunia tax ñu bàyyi dëngee seen waajur. ñaata nit la rajo Dunia tax ñuy muur seen yaram. benn élément rek bu mu ñu génneel doyoon na sëkk ci liggéey muy Seyda Deyna Fall. jenn jigéen joo xam ne gannaaw yàlla buñ ko xamee benn baase tax. rajo Dunia moo tax. ñaata nit ñoo koo ci moom. ñaata nit ñoo xamee seen diine ci moom te lépp mi ngi jaaree ci jëmm jii ci écran bi. jëf ju baax jooju yàlla na ko yàlla fay fa mu tëdd kon dañuy dem tuuti rek euh, dellusiwaat te dugg si nag ci sunu thème incha allahu taala waa Rési intégré wu. intégré wu. parce que nag. boo nangoo ñu intégré ci buñ euh, olof wax ni diw de mën naa nekk ak jaan ci pax su boobaa waxul jaan ba waxul xataayu pax ba comportement nit ki moo tax muy wax. diw mën naa nekk ak jaan ci pax dañ koy wax. Hmm. est da nga dégg ñu ne ah oustaz Makhtar mën naa nekk ak jaan ci pax. Hmm. ndax nu kooku mën a mel. du ko fekk ndax nu jaan ja mën a mel. Hmm. ak ay ayibam. ak lu pax ma xat-xat mom dana fexé fexé fexé ba du ko laal. su ko defé mën na faa yàgg ba yitté mat mu genn na dem ta jaan ba du ko laal. xataayu pax ma du ko xatal caay-caayu jaan ga itam ak dangar ga itam du ko laal parce que comportement la. ma bëgg jigen bi sey ci bir kër gi. wax mu di ko bàyyi fe xel fexe ba xamni su bëggé nek ak limu nekkal ci bir kër gi rek ak nu ñu mëna mel mëna nek ak ñom ba kërok di am da fekk lu ñu am problème. waaye fekk itam nag goro bi itam nag nga xam ne moo jur jëkkëram itam xam it moo xam boppam. Hmm, oustaz Maxtar. noo tuddee xam boppam. waaye li ma tuddee xam boppam mooy moom kii nga xam ne daf ko fekk ci biir kër gi di soxla soo xam ne doomam moo ko jër moo moom bokkuñu statut bu mu wujjee ak moom bu mu ko teg bët na ko def ni doom bu mu jur. très souvent yi nga xam ni moo koy indi moo di jigéen itam wala sax nit en général dafay fiir ba mu ëpp dana fiir ba fiire ku jëkkëram. dana fiire xaritam ba fiire waale domam likoy indi nag modi di bëgge gis nga xër moy indi fër xër xër moy indi fër da daloon mère Thiam dafa xër rek ci la mu doon tim ba far fër wa xër ci sa dom bu mu ëpp xër ci sa dom bu mu ëpp xër ci alalam bu mu ëpp xër ci melokaanam bu mu ëpp ba yaakaar ni yow domu yaa yow ba do xajal sax jabar ci biir kër gi dana indi problème dana indi fër kër gi am problème mu rek regee mbaa mbaa du yóbbaale yóbbu baat bi ñuy bañ a tudd muy siis. mën na amul goro yi siis kon. mën na lépp xam nga boo xasee euh, euh, possessif baatu tubaab la boo xam ne li muy tekki mooy nit ki li mu xam ni moo jege ñaanam dafa yaakaar ne moom dong moo ci yey te dafa am cër bu mu ci am am beneen cër bu keneen am yaay nag na xam ne cër bi mu am ci doom moom kenn amu ko ci kon na xam boppam. na xam boppam. yaay jëkkër war na am personnalité boo xam ni doo jabaru doom du ko sax ñeme ba di ko jaar fenn fi mais nag dañuy wax ni bukki bu dabee wax damay waxambaane ca doxin ba la. léeg-léeg yow comportement bi ngay am yaay tax ba sa jabaru doom ñu ne la ba sax sa doom ñu ne la ba nga ñàkkaal ci sax sa doom. kon yow yaa xam sa cër itam. suñu duggee ba ci biir débat bi danaa indi yeneen yoo xam ni. xëj na moo tax ba goro euh, bi nga xam ne moo jur jëkkër di am jafe ak ki si. d'accord pàcc bi nga indi nag. moom pàcc bu xam ni la góor ñi sax la concerné. moom nga tànn tey pour waxtaane ko. Mhm. muy ki nga xam ni daf laa may soxna. Euh, euh, Oustaz Makhtar. soxna mooy cadeau bi gën a rëy bu doomu aadama di am rawatina ci góor baatu may ba rek sax waroon naa tax ba ku góor ki nga xam ni dafa yor jigéen mu am taxawaay bi mu am ci digganteeg moom ak ñok ko jox nit ak ni mu toll nit ak ni mu rëy ci sunu borom ñu yëkkati ko may la ko ni dañ la may damay muy tekki mooy soxnaam la sa soxna la nga denc ko mm-hmm. kon kala ko jox war nga koo teg foo tegul kenn mm-hmm. mu jur ko yar ko jàngal ko def ci moom xam-xam lépp loo xam ni dafay nekk ci jigéen mu def ci moom ba noppi jël la ko rek ni leen ñëw dëkkoo ko yow léegi toggam manoon dootuma ko toggal sa yaay la koy toggal la ma doon def ci moom ci ay comportement ci ay jikko dootu ko dund ak man yow la koy dundal lañ ko jàngaloon ci ay jëfin yu baax comportement yu baax léegi ca kër gi nga nekk fa la ak say wajur fa la koy defee kon jox nañ la lu rëy kala ko jox na kon dafa war a am benn statut bu spécial moom itam ci yow mm-hmm. dafa am waxkat bu waxoon ni yaay jëkkër su fekkee ni d'accord ci ab sëy wala mu mer sëy ba tasam du wees. yaayu jëkkër yaayu jëkkër. bu fekkee ne am na lu ko naqari ci sëy bi. Hmm. wala d'accord ci woon sëy ba tas du wees xam nga lu pourquoi. Hmm. moo di doom dafa jege ndeyam trop. Hmm. doom dafa jege trop trop yaay bi ko jur ki nga xam ne nag moom dafa jur doomam bu jigéen ba pare nag gën la koo xam fopp loo xam ci moom mu gën la koo xam foofu gën la ko bëgg nag téeméeri junni yoon ba jox la ko kooku bu fekkee ne dafa bëgg yàq rek ah mën naa yomb. kon mom de ko bayyi xel te tek ko def ko nu so wayjur te xoole ko ki nga xam mom la ko jox moom nga ko jox te rusé ko ko nag rusé ko ni mom li mu la jox daggetam la doomu xolam la ku ko don jàppale ci wajju la ku ko don la waye tay di cër bu mu amon ci mom dox ah, na la ko nek sa yow ak sa nday ak sa baay te nag càmmiñam a ci bir keur geure di gor moko ko jur waye so jox won milliard ken du la ko jox kon loolu it ko bàyyi xel ba ko nang ko allah Euh, jërëjëf euh, euh, Sani Ndiaye. Pape Omar Dieng ñu sant la bu baax gërëm la. Mhm. ci ni nga ubbee danaa ñëwaat ak yow incha allah pour ñu gën ko yaatal mais tey damay ñëw ci mère Thiama. Mhm. dama daan jël fii ñëw fi waaye tey damay def nii. Mhm. ndax dañ laa nammu keroog ñëw woon ci thème bi te thème bi weesu nii. du ñàkk tamit loo ci mën a wax balaa ñoo ñëw ci thème bi niñ koy gën a yaatalee tey. mooy goro yi nga xam ne ñoo fekk si. sëy si ci biir kër gi léeg ñu ñëw indaale defante. indaale goro yi dañ lay euh, jël def la wujju ñu sol loolu seen bopp yi léeg tamit goro bi ñu fekk si ci biir kër gi nekk ku weex nekk ku jafee nekkal lan ngay wax ci loolu balaa ñoo ñëw tey ci côté beneen bi Oustaz Matar hmm. da nga laal point bu sensible hmm. te sax ñoom seen traite taxaw na sa goro yooyu goro yan la ñu jur jëkkër yi hmm. ñu ngi armé wu taxaw xam lu waral loolu dafa bis bi waaj a muy tabaski bi ah, ah. dañoo duñu mësa fegal. non koor xanaa koor nga may wax muy suukaru koor. mais tabaski moom am na ban ban xarit lañ ci am. tabaski fàll rey ko yow tabaski gi. poojeeg yooyu. poojeeg fàll regeeg sama doomu jënd xar bi lu ma ciy mos. da ngay gis ku yebe fii yàpp jële ko fii jëmale ma ngaay sama doom ji rey na xarum tabaski masuma ci de de moo yees jabar. ba mu ko takkee ba tey musuma ñam xarum tabaskiyam yaa ngi dëkk Ndakaar sa yaay nga dëkk luga sa yaay nga dëkk Louga wala ngaay nga jële fii yàpp wi noo mun ti def bu dee da ngaa ragal bu dee xale yi rek di nga noo munti def di nga fexe wut rakk ju góor joo xam da nga ko naan dimbali ma rek mhm. te la laay waxaje neexal ko dimbali ma rek ngir yàlla dimbali ma rek maa la ko ñaan dama lay neexal yàpp bi rek fexeel ba mu dem dëkk ba dimbali ma rek mu yóbbu ko ndax rek bëgg lu ko yàpp tabaski oh. seen taxaw na est que du retard xale yu jigéen yi si dañoo sonn gis nga mairie ci kër yi ñooy télécommandé seen doomu jigéen ñooy batterie waaw ah <laughs> ci kër yi goro ñu jur jëkkër yi ah. toog ci kër yi ah. ñooy télécommandé yi seen doomu jigéen ci kër ga ñoom maam jaaraak ñoom caa ñooy batterie sa oh. bu ñu fa nekkulee kër gi day nekk ci jàmm loo togg yaay ma togg li mooy toggal waaye bu mami Jóob ñëwee ci kër gi fekk waaye yaay li ma toggal tey yéen fa muy togg lii mu yaay ki de yaa ko may lu bari yaay ki day nelaw yaay ki fu mu demoon dafa demoon xew waaye yaay ki jëkk yaay na ki yaa ko bàyyi boo ñibbee sa kër yaa indi façon dugal nañ pib ngay taal kama commande ba nga nuyu yaay yaay ne peut mu ne ay yow sama góor bi tey ni mu amee woon jàmm waaye diw dafay ñëw dem rek mu changé seen doomi jigéen ñi ñooy seen batterie bu ñëwee changé ba ñu fees ñu defanteeg ñoom ci kër yi te duñu mës a fégal maire yooyu ma foog yow bu Oustaz Makhtar bu la yàlla dimbale nga am doom bu góor ànd ak ànd baam yàlla may ay tëkk ba mu màgg indi la soxna doo noppalu. pour man da nga war a seexu naa waru waruñoo noppalu ndax ñoom it dañuy sëy. déedéet yow nga bàyyi xel ne moom itamit dafa fekk si maire buy sëy si sëy ci biir kër gis nga maire bu sëy si. waaw gis nga maire yooyu dañoo fégal ñoom fégal nañu xam nga ñan ñoo aye. ñi ne ci kër yi war a togg war a yekk war a. te boroom borom këram nekk ci biir kër gi moom man de su ma amoon goro tey man noppul naa maag sama góor gee suñu saag la ñu yor rek dëkk bi dañu wàcc fa di noppalu man sëy naa ba pare ba am ko war a sëy yow bu la yàlla noppalee da ngay noppalu ah léegi moo lay toppatool sa borom kër yow nga toog jàpp non sa borom kër ko xoolal gis nga xale yi xale yi dañuy sëy ndax paay seen toppatoo métteetul boo xëyee jox ko ndekkeem yàlla muy jël ay garab nag papa jox ko sa garab <coughs> nga jox ko garab mu naa dëgg la ñëpp jël garab léegi di. ku jël garab ñenn ñi joxeetu ñu xale yu jigéen ñi bu ñëwee dañaa man du ma sa esclave buy joxe ay garab ak yooyu mbindaan yee joxe garab. am na kër yoo xam ne sax gis nga Oustaz Matar ñun Sénégal la ñu nekk xale yu jigéen ñi sëy ci kër goro yi ñoom ñooy esclave yi. dañoo nelaw ba 10 heures. moo waaye dama bàyyi. ñi sëy yi ñooy nelaw léegi ba 11 heures moo tax duñ jubóog seen goro yi ñu naan sañoo wallaay sañoo ko Oustaz Matar sañoo nekk sa kër goro yi nelaw ba 10 heures xale loo pànk pànk loo njàddiri njàddiri sa kër gi ngay sa gor di fi yeewoo bu góor ak bu jigéen ak ay sa sañoo faa yeewoo 10 heures ndax yaa ngi xalaat ni boo yeew bu la tegee ci ànd ba danga naan wëqat daw Ousama Taf affronté ko dafa doy waar sa yaay jëkkër affronté ko nag ak ay sëram ak ka doy waar il faut que yàlla may la ndëgëraay. looy affronté looy ñëw war a jàmm ñëw di affronté. ñëw ñoo lay affronté ak di nelaw bay 10 heures. waaye jeeg buy sëy dana nelaw bay 10 heures waaye ku fi ku fi yeewati fajar. ah kuy sëy. waaye Ousseyn Mata kuy sëy dama ne kuy sëy fekki goro nelaw ba 10 heures yaa indi problème kuy a dee gis ngeen nag yàlla dañoo oh. bàddil de gis ngeen fi xewee xawtu fa man li ma dund sama doom du ko dund di waaw ñun yaay yi dañ doon root dem marché yoo togg uh-huh. da ngay wusil léegi pare teg añ yàlla dimbali nañu nag léegi loolu seen sansa waaw seen sansa li ci des nag mooy ngeen neexal gore yi dañ koy neexal waaye ay Oustaz Matar su ma la xool ne dafa jour nga ne ma jour dafa bëri lu ma ci man dara xanaa ne ko dafa zone rek d' accord. <laughs> ñoom seen bopp. waaye da ngeen fay nekk naan ko zone. gis nga ñoom seen bopp yaay yi jëkkër yi ñoo war a toog seen toogaay defar seen xol toog bu leen joxee añ ñu añ ba suur naan ndox yi seen góor toogal seen góor di waxtaan. waaye mënuloo léegi toog daal moom ngay la jox ngay lekk di naan yow bokkoo ci daal. mais Ousmane Matar. woy waay kuy sonn da ngaa bëgg jërëjëf. waaw boo amee ay doom yu góor ñu ni ay soxna si kër gi di togg di yekk yow doo noppalu waaw léegi bu ñuy togg ñu tere la xorom ñuy xorom bam saf doo wax e kenn bu na tere xorom lay defar sa régime à part sa à part lañ lay defaral xale yaa ngi sëy mais mairie ci kër gi ñoo nekk ay télécommande seen doom yi nekk ay batterie lëjal nit ñuy it Euh, ndax ay écran fa ñëw. léegal lu ñuy <laughs> seet dama ñuy pompe te kaay ma gis nga tànku tabaski yooyu ma lay bëgg a wax nii. boo ko joxee moom mi ko joxee de day woo doom bu jël ko kaa indi fi am ñu neexale ko sa sëy dañuy neexal seen sëy doom yi bëgg a kaa ni sëy doomu jàmm bañal. bañal ku lay bañ lépp luñ jur. ku ne da nga am ndey ak baay. Mm. bàyyi sa kër ne dem sëy bu dul walool kenn du sëy dañuy toog suñu kër ndey suñu kër bàyyee. Oh. bàyyeen xale yu yow bu la déggee danga nga far ah? far non non yow danga nga far. Oh, yow yaa ngi ñëw fi mu toll jël goro yi dugal leen ci pot. Euh, mais yow xale yi jigéen ñi léegi ciib ciib bi li ma wax keroog mënuñoo togg mënuñoo fóot mënuñoo tontu. moo tax léegi ñuy daw fekki goro. kenn koo ci wax mu ne ndax sa yaaya ngi dund. ndax bañ tàng. tàmmu mbindaan goro yi ci kër yi. goro ci kër yi. nañ defaraat seen toogaay rajo télé laay wax. ma ne ñiy sëy si tamit nañ dekkal seen toogaay ñoom it. Ousmane Matar gis nga booy sëy dañ la yeb boo demee da nga ñëw sax di da nga ñëw ci kër gi sax di xaw ragal say njëkkee ndax liñ ñu la yeba tax da am njëkkee loo xam ne te ne utul sa jàmm utul sa jàmm utul sa victoire sa defet lay wut man la nag dama leen naa nag xuloog sama bu teew ginnaaw ma dal si ginnaaw doo mère Thiama mère da ngay da di dem ci géew yi ci xew yi bu xew amee xale bu jigéen buy sëy am lay gaaruwaal de non non non am nga loolu di wax ci euh, euh, jeeg bu ndaw loolu jeeg bu ndaw ragal ah, loolu wax wolof la ragal góor yi ragal njëkk yee jéeg bu doo ragal bu ko defee mu naan le léegi nag jéeg bu ndaw ñi me lu tee bu guddee nga jàll kon da ngeen wax bi léegi dootul jéeg la xam nga respecté jëkkër am non xam nga wolof dafa garaaw gis nga lim noonu wax jéeg bu ndaw ragal ragal góor boo nekkee kër gu mel noonu boo amul fit da ngay dem ragal waa léegi pour la sa fit di dem tu sëy sëy dafa guerre la damay laaj ndax sëy guerre la mais benn stage la booy def ci kër gi. yàgg yàgg goro bi day faatu wala nga dem nga dem sa këru bopp. wallaahi xool sa yaay ni formation la ah ku góor ki nag. góor ki nag xanaa xamoo doom bu jigéen ni muy toppatoo góor góor du ko toppatoo yaay kooku lu ñu am ñu ngi yëngu suñu kër goro yi. waaw léegi foofu la ñuy ñëw léegi ñëwal foofu day jékki-jékki rek toog benn deux mois def sa yaay ko benn ñaar joo nag sa yaay. mu ngay xool neex say goro say njëkke bu kooree la même chose bu xëy amee ci kër gi yaay sama kër goro dafa am xew sa yaay booy la bu am ngay dem te yow sa kër yow bu amee xew sa jëkkër dañoo ci ndudd bi alors sa waay jox la benn ñaar yu ni avancé dem sa yaay ay sama goro bi lànk leen da jox fukk nga delloo ko juróom fukk nga ma jox ma jox la juróom dañ laa jur jur ko yàlla boole ñuy sëy yaa ngi dégg am na loo xam ne ma ko wax de te la laa nekk dañ bàyyi xale yi ñuy sëy may leen jàmm xale. dëgg la maanaam yow da nga bëgg daal euh, ku kii sëy si ko bàyyi mu gérer lu mu defal gorom moom tamit na ko defal yaayam. déedéet dama ne. Hmm. par exemple man tey Oustaz Matal mi ma jur ko mu ngi ma sama doom bi ma jur ko. Oustaz Mouhamed Oustaz Mouhamed. Hmm. doo gorom yi dañ may toppatoo. waaw chaque instant ñu bëgg lu ma neex. Hmm. waaye moom. day jékki-jékki rek jaar sama kër alors mais na nga def sa waa gëj naa ñu xam benn ñaari junni. lay yoral ma di ko way fu ma toll. mais mu ngi lay yoral sa doom. man na maa ko waaw léegi nag foofu nag nga fàtte nag nga fàtte ne yow sa charge la la teggil vraiment charge laa teggil sa charge yoral la ba noppi diine moo fi indi sa kër ndey nga ñu amee 17 ans nekk suñu kër baay ku la gën moo la gën waaw waaw waaye bu ñu suñu kër jëkkër yi ku la gën jëkkër moo la gën suñu baay dañoo yor de pattaluñ ñu làggaluñ ñu ba ñu rafet suñu yaay diñu sañse ba nga gis ñu bëgguñu mu xëy maye la ñu xëy maye ñu wala xale bi dañ ko jële fii bu ko kër lébu bu meloon ne nag kenn du ko jël si saa ñu leen seen posé di beneen xale ñu sëy dama ne ku fi yor sa doom bam ne nga te gisoo koo ko may jaaxle. bilaay dëgg la de. ku ñëw eh. koo ñaan nga ne alhamdulilah bi ma ko jëlee. Eh. mais loolu am man la. doom ne doom bi góor la ay sama déglu ma may ma xoolal. kooku mënu la yor sa doom ba noppi yor la. am 35 ans ñu ne la waaye kuy takk jabar ay kii lu ko dal dellu seet lu ko sa yaay jaaxle nante sama doom ji. ñaar fukk at ak juróom. ama ko jàpp amagul soxna lu ko jàpp ba ba baax na ba baaxul. non non côté bee la ëppee non non non. bul may ma may ma man la man la six ma taar sa doom ju góor amul soxna. ñooñu gën a jaaxle ay 1 pour cent la. a jaaxle. mais jéeg ji fi nekk sañse gerefaas yi ràpp yére buñ sol ràpp te duñ gis góor gu ne leen gi ñaata at sa yaa war a noppalu ngay xëy takk tuba yi dama soxna amoo sët mais wërsëgu yaayam la Oussa euh, sa euh, euh, mère Thiam tey xale bu góor boo fi ne yàlla nga nekk sa wërsëgu yaay mu kontaan yaayam kontaan waaye xale bu jigéen boo fi ne yàlla nga nekk sa wërsëgu ndey mu yendoo jooy waaye yàlla moo waral ñuy sëy jeex na dégg bu waroon toog suñu kër ndey ak suñu kër baay baay la ñuy toog di liggéey rek suñu boo di tere suñu yaay yow xanaa xamoon ne booy liggéey sax sa xaalis sa kër goro la jëm waaw d'accord bu weddee la nga liggéey génn waale laa nga koy neexal say goro may leen jàmm te ngeen toog ba xale ñu sëy bañ d'accord <laughs> Mame Diarra Euh, yëkkati nañ bi semaine bi weesu jeexul ñu delloo si waat ko mais ki nga xam ne moom mooy euh, ki jël doomu jàmbur mu sëy sil ko mu jox la ku foor ci moom muy muy daggitam kooku ban relation la war a am ak yaayu soxnaam ak papay soxnaam ndax léeg-léeg ñu gis ne comme li ci amu wax doo fa jaar doo fa dem doo leen faale sa yoon nekkul ci ñoom yow daal ba ngay bëgg a jël xamoon nañ la yaa ngi doon neexal mais ba nga jëlee nga fa gëj looy wax ci loolu. waaw oustaz loolu li ma ciy wax rek euh, euh, responsabilité responsabilité yi c'est partager soo fekkee doomu jàmbur kër ndeyam ak baayam yàlla def parce que yàlla mooy def nit du def dara. yàlla def ba dogal seen diggante ba nga jël ko comme ni fa ni nga fa doon demee ba jël ko danga leen war di nemmeeku di leen woo téléphone. di leen nemmeeku bu baax a baax ndax ñoom ñoo la may soxna comme mais caama li mu wax gis nga diine bu daganul woon sëy man du ma sëy. maa ngi yow mi toog. lu tax doo sëy. parce que gis nga sëy gis nga responsabilité bi gën a diis ci jigéen mooy sëy te nit ñi xamuñu ko te sëy dafa nekk loo xam ne oustaz dafa metti dafa métti ñun seen couple yi sax xam nañ ne sëy dafa metti bu njëkk nag avant ñu am jëkkër koo wax dafa wax ne sëy moom. kii daa bañ ma sëy rek mais boo ci duggee ngay xam ne sëy dafa metti jóge sa kër baay dem fekk gis nga ñun jigéen bu jógee kër baayam rek nangu naa sëy oustaz kër baay dafa neex de kër baay neex kon buñ fa jógee ba sëy rek yàlla wuñ ko sant te bëgg nañoo sëy mais ñun bëgg jeunes yi bëgg nañoo sëy de xale yi jigéen yi mais est-ce que may nañ leen fu ñu sëyee usaas jikko yi dañoo yàqu xol yi xomaat sa jeex léegi booy takk jabar xam nga lu ñu lay wax na ko yóbbul cinq cent mille wala un million ndax mu yebbul ñu waa ko amul yebbi nag. dafa toog yeb la. waaw ah, mu yaa ko wax de. bu ñu la wanul yeb nag doo sëy. parce que sëy yi yebbee ko yor. tey boo yebbuwul ñu xas la. te kër goo dëkk ñu di la xas doo fa toog. dañ na yaayam de ñaari pot la fi indee. kay gis nga góor kenn du ko sës si miir. koor day taxaw ñu ne suukaru koor fu ko diine bind. te yow mi koy laaj sax est joxe nga ko diine waxul suukaru koor. non ci li neexal sëy bi la bokk. non non oustaz li jël doomu doomu jàmbur indi ko ci biir kër gi weer amoon lenn loo xam ne danga ko séq ak ay way juram. oustaz gën a rafet koor jot nga jël suukaru koor jox leen. lii gi xar mi nga jënd mu jël pooj bi yóbbul leen. diine ko nga toog ba yàgg jël saako ceeb jox ko. pooj bi diine ko diine wax. non dañuy waxtaan cadre général bu leen jël affaire bi islamisé ko ci islam la jóge dañ koy islamisé ñu ay jurit lañ ay jurit lañ loolu diine waxu ko fenn li neexal sëy yi moo tax sëy yi li neexal sëy yi mais diine bëgg nañ ñu juboo waaw oustaz Mohamed mais oustaz bu ñu yemoon ci li ñu diine wax kon kenn du xuloo waa jaara waa dama ne mais léegi est-ce que yéen diine moo leen sànq ah? xuloo sa gore tax sa sëy naqari ah waaw waaw mën naa naqari sëy nag wax dëgg lu mu koy naqari le ah, xuloo sa gore naqari sëy ay yow ñaan nga yàlla xulóog sa gor. ah bu ko bëggee nag fooye poosam. jaara du du tee ma fooye poosam laa wax. jaara waaw. yàlla bu leen yéen dafa am dafa am lu doy waar ci li ñuy waxtaane lu ngeen di def. Mhm. Euh, sa morom yi. ñëw sëy si nekk sa jëkkër. lu baax ci kër gi nga yóbbul sa yaay. yéen a koy def yéenay tibb ceeb bi di yóbbul seen yaay di jël diw di yóbbul seen yaay ravitaillement bu seen jëkkër yi ngeen jël ko yóbbul ko seen yaay jëkkër yi amatuñu ceeb bu di mais du mat ndax yéen a koy tibb yóbbu ni muy matee bu ñu xëyee 1500 lañ lay sànni ne la débrouiller yàlla jël 500 sa yaay yàlla bul nekk koy liggéey nag yow sa sag la ah? oustaz sa jëkkër la non bul daw question bi maam Diarra dama la poser question man sama question kenn du ko daw dama ne ma toogaatee ne faax. dafal nànk dafal kenn du ko daw li ma la wax dafa leer. ndax yaa ngi dégg. maa ngi lay dégg yokkal sa déglu ma. dama ne sa morom yu bari. yaa ngi wax 1500 bu ñu la joxee 1500. waaw nga jël 500 ba jox sa yaay du mën a mat. waaw dama ne la ñu bari seen jëkkër ñi ngi jënd ay ravitaillement. Mhm. ceeb diw suukar. mais genn wàll gi da koy jël jox mbindaan mu yóbbul sa yaay. loolu saf la sa jëkkër nga naan ko dépense bi jeex. loolu sa morom yi koy def. bu daw question waaw xam nga léegi wax nga ba pare dépense sax daa jaaratul ravitaillement daa jaaratul suñu loxo. su ñëwee ci loxo goro bi lañ koy teg. mooy xëy na sóoral kilo wala sóoral liibar ak genn waa liibar wala mu tibb ko jox la bu doon day jaar suñu loxo sax ñu am lu ñu waaye dafa jaarul suñu loxo. ñun jeune jeune marié yi ravitaillement jaarul suñu loxo dépense dangay gis nga yeewu war a jox sa jabar dem jox ko sa yaay parce que sa yaay moo ko exiger oustaz li ma la wax rek. jox yaayam waaw mais ñun nuñ ko yóbbulee suñu yaay yow sa yaay yow lu motul noo ko coppee di ko yóbbul sa yaay yàlla bu nekk nag kuy liggéey boo nekkee kuy liggéey ba ma ñëw ah wala lebal ma ko oustaz góor ñi ñoo nga jël cinq cent ba jox sa yaay yow noo joxee sa yaay moo lay woo lu la sa jëkkër jox lum la jëndal weer bi lum la may yéen seen seen yaay yi ñooy bëggal sëy seen sëy ñoom it bëgg a toppatoo seen sëy ci kër gi xam nga xam nga mooy ma la wax ne responsabilité partagée xam nga bu njëkk danga daan nekk jigéen am fukki at ñu may la borom kër ñu ne ko na sëy ñu yóbbu la ñu wàcce la sa néegu goro ñu ne tànk motul bu leen ko jox jëkkëram sa néegu goro ngay nekk fa ngay nekk fa ngay nekk mu di la tette di la yar ba nga mot mu jox la sa jëkkër léegi loolu amatul léegi yow boo ñëwee dañuy xool kenn kii nan lan lan la ñuy yebbil lan la indi lan la indaale lan la ñuy yebbin ndax suukaru koor bi ndax nii gis nga xale yi suñ leen bàyyi rek ñu sëy aka ñoo bëgg sëy waaye ngeen bàyyi tibb ceeb bi. oustaz yow oustaz ceeb daa am bañ koy tibb. léegi maam jaar nañ tibb ceeb leen tibb ceeb bi ak lu seen yaay xam. xoolal nañ tibb ceeb. sa sol sax bu xëyee da nga ko nettali sa ah, xool man la tibb ceeb ba mu neex. Ah. man de boo indee saako ceeb ma xaaj ko ci dëgg bu dee cinquante bu dee vingt-cinq yónnee sama yaay. waaw gis nga mi ngi nii. bañ a ba mu neex dana gaa yi danañ woote boo ma joxee goro suukar may ñetti paquet suukar jox sama yaay. jeex na may nàmpal ma xam nga ni xam nga ni bokk na ci eh, eh, lu ñuy wax ni eh, njiit bu nekk sàmm la xadis bi dañ koy dagg ci bëree ma laaj Oustaz Mouhamed loolu diine wax ci ko dinee Oustaz Mouhamed. bu ko dinee bañ a yaa dégg ñi. maanaam lu wax ci dépense. may sa yaay wàññiwul dara. dépense bi nga xam ne moom la la sa borom kër jox maanaam sa sa yaay nga ko ciy compal. boo tontoo ci loolu nga ñëwaale nag ci cadre général bi mooy ki nga xam ne moo la may soxna lan moo war sa digganteek moom en tant que yow mi jël doomam <laughs> waaye dépense bi euh, ci biir kër gi ak liñ ciy fell léeg-léeg dama koy fell ba ndax diine wax na ci. dama koy fell ba mu neex. <laughs> Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, li wax na sànq benn benn mbir bu am solo boo xamante ne daf ko wax jaar nii rek li diine jàngale buñ ci yemoon kenn sonnatul. <laughs> te muy dëggit tamit. Euh, te Omar mu ngi koy junj euh, prophète sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg xadis bi nit ñi dañ koy naan kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi ku nekk ci yéen sàmm la te sàmm bu nekk diis na ko laaj la mu doon sàmm nan la ko doon sàmme mais xadis bi yamul foofu mhm. dafa continuer mu ne euh, góor sàmm la te yàlla dina ko laaj la mu doon sàmm bi maanaam sàmm góor mu gën a yaatu moo tax yonent bi préciser wul lan la góor di sàmm mais mu ne wal mar'atu raiyatun fi bayti zawjiha wa oh. masulatun an raiyatiha oh. jigéen sàmm la ci biir këru boroom këram te yàlla dina ko laaj li nga xamante ne moom la doon sàmm li ko li la sa borom kër di jox que dépense fam la sant nga dugal ko nga ko war a dugal leneen loo ci bëgg a def na doon ci li nga xamante ne mooy antaradin na doon loo xamante ne lu mu d'accord la su ko d'accordul rek mooy yaa ngi jël xaalis boo xamante ne wala lu la lewul di ko yóbbu di ko yóbbu feneen. même bu dee say waajur nga koy jox. même bu dee say waajur. kon réew mi na. même bu dee say say. loolu ci dina wax la dañ ci am bàkkaar. parce que du yaa ngi dugal xaalis bi foo xamante ni sa borom kër sant la ko nga dugal ko. mu ne ndax loolu da ci am bàkkaar. da ci am bàkkaar kay. oui nañu door ay yat. fenn rek fenn rek la jigéen. di amee sañ-sañ jël ci xaalisu boroom këram mooy kaa bi maam wax mooy góor ñi joxeetuñu lu mat te boobu yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy wax dafa wax dafa wax ni xudi min maalihi maa yakfiiki anti wala waladik dafa amoon ci saxaaba yi koo xam ne ñu ñëpp xam nañ ko Abu Sufyan mm-hmm. Abu Sufyan kilifa la woon mais tamit euh, dépense am na góor ñoo xamante ne ñemewuñu dépense mm-hmm. mu ñëw di jooytu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax ni Abu Sufyaan duy joxe dépense bu mat. moom Hind moom Hind. Mm. yonent bi sallallahu alayhi ne ko bu boobaa na ngay jël ci boo xamee fa muy denc alalam. Mm-hmm. jël fa luy mat dépense su kër gi. moo mm-hmm. ne góor bu dul joxe li mat. bu boobaa boroom kër eh, soxnaam mën na bu xamee fa muy denc kiim wala par exemple mu jox ko par exemple eh, góor a ngi nii duy joxe dépense bu mat. Mm-hmm. bis jot mu jox la dix mille. wóor na ne ne dix mille bii nii bu la rëccee da ngay karkari mhm. noo fexee ba dix mille boobu nga def jënd ci dépense bu mat mhm. na ko fexe nga def ko mais bu weesoo loolu sa boroom kër jox la lu mat loo ca fel loo ca fell yóbbu ko su ñëwee nang ko ko na ko tax na nga ko na nga ko lewal mhm. bi maanaam ah tey jii de jël naa ñàngami kilo jox ko sama yaay parce que jamono dafa dafa dafa dafa metti mm-hmm. loolu loolu nga c'est-à-dire koy daganalal sa sa diggante mais boo ko noppiwaalee mm-hmm. jël nga lu ñu la mayul nga yóbbu ko ci foo xamante ne daganul mm-hmm. kii loolu mooy loolu mooy secret nga secret bi soo koy wax nit ñi dafay rëy ci ñoom et pourtant pour mu dagan lu yomb la amul benn góor bu baax booy ñëw ne ko yóbbul naa sama yaay tey benn paquetu suukar. bu dee góor gu baax la muy mer kon yow li la lislaam sant mooy bul ko ko nëbb xamal ko ne ko jël naa tey ci li nga xamante ne mooy paquetu suukar yóbbu ko bu mu nekk yiw ñeel la nekk yiw ñeel sa boroom kër waaw loolu laay wax kiy joxe détail kooku tamit deful mooy li nga wax rek ci njaalbeen gi bu ñu nit ñi defoon li nga xamante ne moom la lislaam sant mhm. kon problème du am mooy ne tey jii nii góor ñu bari mhm. <laughs> dañuy bàyyi xel li seen soxna am mhm. euh, sa <laughs> yàlla dogal na maa ngi ñett samay ñetti soxna yàlla la tele laa nekk de dëgg la ñu ngi liggéey xaw ma ku ci nekk ci ñoom looy fayeeku mhm. yitteelu ma xam mhm. Mouhamed doogu ma xaw lu ñuy wax mhm. seen waa kër moo ka naan day liggéey na defal boppam day liggéey ñiy liggéey yëpp yor seen bopp waaw wax ko ci kaw góor yi bu ñu fayee seen courant fay seen nga jànk bi ci gi sax mu yor sodo daka naan na ko fay ndax mi ngi liggéey du looloo taxoon ngay liggéey li ngay liggéey loo koy doyee a ah, baax na aca ah pour ngay def sa bopp ak di def ci mais góor moo war a yor jigéen def si boppam yaa ñu war a yor góor moo war a defar est-ce que góor waxee ngeen toog da toog bañ a liggéey. waaw yow kuy toog ah, kuy toog xew. toog yow yoroo la toog yow balaa nga gis nga nit boo ko nee bul dem fii na fekk nga utal ko fu dem. nit balaa nga war toog loolu na fekk nga mu leer na ne yow kii mun nga koo yor mën ngaa motale léppam léegi bu ne la nga toog da ngay bañ buñ ne la nga toog da ngay bañ foo toog jëm réew mi toog bañ a bañ waaw léegi boo amee ñu ne la nga def ci kër gi nga ne l'islam daf ma digal pour nga yor te l'islam digal la buñ la waxee nga toog nga toog l'islam dafa ne l'islam dafa ne l'islam ah. dafa ne su góor dafa war a motale li ko sant ci diggante ak jab ci digganteem ak jabaram yow bu fekkee ne sa borom kër mu ngi motale lim la sant seen diggante lépp lépp mu ngi koy motale comme ni ko l'islam waxee hmm. bu la waxee toogal nga bañ yaa ko tooñ su la waxee toogal nga bañ yaa ko tooñ mais yow koo xam ne bu la joxee ndékki da lay wax mu ñëw añ bi ba réer la toog looyee nga toog rey nga sa bopp. dee nga bu yàgg. Seyda Maam Jaara. loolu fan la am. <laughs> la am balaa ah. ci ci tonton Omar. moo war a am. Ah, ci diggante eh, goro bi. jigéen ki nga xam ne moom nga jël doom rek relation bi si war a am relation respect la. Mhm. avant tout xam liñ la jox. gis nga boo demee Casamance euh, booy booy booy ñaani soxna. Mhm. dafa am lu symbolique lu ñuy def. Mhm. loo xamante ni tout le temps dama koy wax ni soo dee gor moom nañ la buñ la koy defal dafay nekk lu simple ci yow lu rëy. mais jël nañ buum lonk ko sag baat. Euh, Casamance Ustaz Makhtar tay suma don doon ñaani doomu Papa Omar man damay ram, ba fekki ko pour wane liñ may jox valeur la yow ku góor ki ku góor ki soy ñaani doomu tambalefi, ni do taxaw fi de buñu toge ni da ngay tambali fi di ram di ram di ram ba yegg ci sa goro ñaan ko doomam bu loolu dafa symbolique. Mm. di wone liñ lay jox du lu tuuti. Mm. ki la koy jox it ku ku foor la ku foor la way jur mm. ku kon ki nga raam ba ñëw am na titre boo xamante ne moom. moom la moom la am. daan naa dégg ñuy wax ne wolof day wax ni këri goro ñax du fa sax. këri goro ñax du fa sax. yooni kër goro. yooni këri goro ñax du fa sax. maanaam waroo faa gëj. <laughs> ndax fooy jaar moom nawet baa ngi ñëw. day saxa sax ba def nii. ba am barax barax ba jóg xam nga barax. ak fa du dem sax. waaw bu goro bëggee noo fay demee boo goro bu fekkee heure boo ñëwee mu génne la téeméeri ordonnance. Mm. non non am na benn wax boo xamante ne nit ñi dañ ko war a bàyyi xel et man pour man dafay nekk lu yàq. Mm-hmm. moo di ne ñun da ngeen dañ leen a teggil li nga xam ne. charge mm-hmm. non. ah oustaz dañ leen teggil charge nag. non non ah? ñun ñoo jël responsabilité. ñun ñoo nangoo jël responsabilité yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane man istataa responsabilité engagement man istataa minkumul baa au vous la euh, la jeunesse ku am kattan mën kon responsabilité la yow yaa nangoo rango ab responsabilité léegi nag ki la may soxna defal la parce que yow da nga doon góor bu nekk dafa am jigéen bu muy rêvé tëjër ba ngay rêve di gént loolu am na keneen kuy farlu sa rêve boobu nga xam ne moom amagu ko mu la koy defaral di la ko waajal kii la fexe ba réaliser la sa rêve nga xëy benn bis gis ko gis ne la ma doon gént kon kooku war nga ko delloo njukkal mhm. parce que góor gu nekk dafa am jigéen bu muy rêve gis mhm. jigéen jooju ca taar taar gi yàlla subhaanahu wa moo ko koy jox mais taarug biir waajuram moo ko def ci moom mooy xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa amul benn góor gu yàlla di baaxe di nattoo ñetti doom yu jigéen wala ñaari doom yu jigéen muy tàggat leen yar leen baax jëm ci ñoom kon loolu waajur bi def ci moom ki la ko defal da ko war a sant gërëm ko parce que sa doom sa yaay doom bu baaxee mhm. du moom moo baax mais dañ ñoo def ci moom baax mhm. mhm. macha allah kon loolu lu mat a lu mat a lu mat a bàyyi bàyyi xel mais yaayu jigéen ñi tamit war a jàppale seeni doom ci wàllug li nga xamante ne moom mooy sëy ñoo ci jàpp di parce que léegi-léegi bokk na ñoo ci jàpp bu baax bokk na ci bokk na ci ah. cest à bu bu jàppee loolu mooy war a war a jàpp mooy sa doom lépp lu mu yendoo dana la ko wax. na ko ko wax. Ah, bu teg ko ci yaay bi c'est normal sa yaay boo meree sax nga wax ko. ñun xamuñu si du dem. sa yaay day ràcc de. mënuñu creuser li nga xam ne nga xam moo nekk ci biir sëy. am na yoo ko suñu yaay moo ñuy mottal. moo tax lu ngeen yendoo da ngeen ko mun la baddali nga dem nga ni ko. am na lu warul xam sama njëkk bi te dafa ñëw defante naa moom mun la toogal loolu du sa cër mm-hmm. ki sa sœur la def ko ni ñi nga bokkal ndey bàyyi si kër gi yaay jooju nag ñaareel du yen doo laajte moom day bàyyi ba mbir mi ah, ne këpp ne jonn ñor ah, mu ñëw nag taxaw taxawaayu kilifa xam ne whatsapp lay tudd yaay joo xam ne chaque jour yéen a ngi ci whatsapp loo togg mu xam ko dafa xew de ah góor yi fi am naa xaar mu defara ba mu baax eh, waa tonton looy wax looy wax ci loolu xam nga jamono góor yi ñooy ci jamonoy whatsapp mu ci kër gi dara lu baax tey lu ci bare bari mm-hmm. jigéen ak ni daan séyee bu njëkk ba léegi dañ daan dem sax di dund ay métit mhm. ba feebar mhm. sa yaay du yëg kenn du yëg dañuy mhm. mujj wax sa doom ji gën koo gis ah maa ngi koy dégg du la wax dara dëgg la mais dafa am goro yoo xam ne nii bi ñu la mayee dañoo joxe bopp rocc làmmiñ mooy dañ ne la am mais bu ko sa loxo laal goro yooyu tamit est-ce que sa nekk ak ñoom dana mën a neex jigéen ji nga xam ne mi ngi nekk di sëy te lum yendoo yaayam xam ko loolu loo ci wàññul dara de waaw xam nga dañu wax ne kër gu jàmm yendoo waaye fa xam lu mu waxul muy secret Euh, dafa am loo xam ne su ko jigéen day dund ci biir kër gi mu nekk metit mu fas yéene xam ne moom dafay jaamu yàlla ci sëy bi te dafay sàkku si lu baax na ump way am na ci la nga xam ne ump way juróom bu jigéen surtout way juróom bu jigéen surtout te wax naa léegi ni doom bu jigéen ak ndeyam dañoo jegeyaate te nag oustaz Makhtar nañ bàyyi xel lenn nit lu mu la may lu mu valeur la mën na la koo may fàtt ko ba mu des doom mm-hmm. doom sidit la res la. res la. bu jóge ci yow. lu mu la mun nit mën a jox rek. na nekk milliard na nekk ay jamono keroog ba mu la ko joxee ndax bëggeel keroog ba mu ko bëggee ndax bëggeel dafa teraanga man na ko fàtte waaye ku la jox ñu tekki noppam fu mu toll xelama nga ca ndax xolam du ci jukk kon kooku nag bu fekkee dafa tudd wéyjur nga xam ni lépp loo xam ne dafa metti doom bu sañoon sax moom ci kawam lay tegu yow mi bëgg a sëy te ku nekk xam na ni say métit la ñoom ñii di ay na ni say métit la métit la boo xam ni euh, commencement bi mooy métti waaye buy jeex dafay neex te bi ngay tàmbali da nga fas yéene woon toog fa ba mu jeex tàkk kon lépp loo xam ne li alaakulli ànd war na la a jëlee te fekk àgg ko war nga ko moytu bokk na ci nag di nettali sa wayjur jigéen surtout métit ba nga xam ne moom nga fay dund. kon xale bu jigéen bi nekk ci biir kër gi di sëy am na yaay ju mu bàyyi mais am na yaay ju mu fekk si li koy metti moo xam dafa jóge sax ci wayjur ba. moo xam dafa jóge ci jëkkëram moo xam dafa jóge ci njëkk yi su fekkee ne am na xereñte gu mat sëkk ba di ko waxtaane ak gorom bi ci biir kër gi lu goro bi dangereux dangereux dangereux dana dem ba mujj xam ne ay la yéwén kii daal doom la joo xam ne ku ko uuful itam yaa rek. ndax ndax ndax ndax nëbbu ma boppam. loolu naa mu ñor si yéen a dëkk. dëkk dafa metti loolu la reex de. sa yaay jëkkër boo ko defee ne ko yow tante gis nga ma ki dem ah muñal nag. mercaama nit day muñ sa a bokk ndey ak baay. bu wéeteeg boog di wax ko ko njëkkalu mag wax mu la dañuy waxtaan ak adduna. man la adduna la ñuy waxal te ay jub ci télé la ñuy waxee. dañuy waxtaan ak xam ngeen ne goro yàq nañ ko. d'accord waaw réew xam nga goro yàq nañ am na goro yoo xam ne dañu am juróomi doom yu góor ñu fase nañu. mercaama dañu lay oh. déglu de. xam nga ñu fase nañ kon moo sikk. mercaama xam nga am na ñoo xam ne ma dugg ci kër gii ndax caama fa nekk boo ñëwee moo lay imposer mais ba da ci acca am na ñoo xam ne tamit sëyi nañ fukki kër kenn du jeex voilà très bien fa la bëggoon ñëw kon si sa rek xam xam nga boo waxee côté bee tamit bul di daw côté bee tamit léegi da ngay daw côté gauche bi nekk ci droite bi non non oustaz Makhtar bu fekkee dañuy bëgg a nekk ci débat. bi gën a xew. ñu bëgg ko centraliser fenn. Mm-hmm. yow xam nga li ma la wax bi gën a xew wala ñu bëgg jël ay cas individuel. waaw ñu bëgg ko généraliser. àddina la réew la Sénégal njaay la Sénégal man la Sénégal njaay la. Merkama du àdduna. Mm-hmm. du àdduna xamul tax du àdduna xamul tax du àdduna xale jigéen yaa ngi ci kër yi di sëy taawlu fa ba caat mm-hmm. du fa. du jeex du xaaj. duñ ko de tey léegi la ay appartement yooyu xew mais ñu ngi ci biir te te ñi am moyen def ko sax bariwul ku nekk xam na ne jamono toll na foo xam ne fii métti na métti ñu ngi ci biir kër yi ñu ngi ci biir ko fa toog mm-hmm. mais duñ loolu de métit métit boobu fay nekk nag waru leen a dax mm-hmm. ndax bu fekkoon ne métit métit mooy tax daw jabar daw na bu yàgg mm-hmm. wala jëkkër daw na bu yàgg wala yaay daw na bu yàgg wala sax sëriñ ba daw na wala sax taalibe daw na ñu dëkk alakuli ali il faut mu am lu ñu dëkkaale parce que doomu aadama moo mel noonu ay nit suñu bokkul fu ñu juddoo bokkuñu fu ñu yaroo bokk lu ñu bëgg ba pare bëgg dëkk il faut mu am ay wute. wala ñu muñalante. voilà très bien très bien. tudd nga baat muñalante très bien moo tax nag. moo tax nag yow mi nga xam ni yow yaa jóge sa kër ndey yaa jóge sa kër baay am loo wut si. yaay muñ. ah kay ah kay xam nga nit. ñëpp a indi leen nit yow yaa koy muñal gis nga. loolu moom loolu moom. bu la nilee doomu aadama. yaa koy muñal da ngeen may déglu loolu d'accord naa bu baax loolu da ngeen may déglu bàyyi sa kër ndey sa boo xamante ni mosoo leen dëkk. ñëpp a war a muñ. yow sa jikko jëlee ko sa kër ndey ak sa kër baay nga war a dëkk ak ñi à moom nga suul ma rek wala ma tënjale la am déet. d'accord bu mën a nekk. Euh, xam nga dañu nekk ci dañu nekk ci dañu nekk ci benn cas bu précis. Mhm. kon nañ ko nañ nañ wax ci cas boobu. Mhm. kan nañuy waxal góor bi jur sa jëkkër wala góor bi jur sa jabar kon kooku dafa am benn statut spécial comme na ma ko waxe woon même bu ñëpp waree muñ yow miy xaleel nekk ci biir kër gi fekk fi mag donte jur loolu sa jëkkër sax yaa war a gën a muñ waaw di wax ñi ñi ci téléphone bi ku ñëw rek ñu bàyyi leen numéro yaa ngi noonu mu ko yéen a ngi déglu débat bi mën ngeen cee bokk mag mi nga xam ne fekk ci biir kër gi moom li nga xam ni moom moo ko war moo di mu yërëm xale bi waaye xale bi li nga xam ne moo ko war moo di mu respecté mag bi ba pare déggal ko yàlla bu maase am caatam nit nag nit nag bu fekkee da nga ko bëgg a jox cër mu nekk doomu aadama kese di juum te bëgguloo koo muñal kon bëggoo ko jox cër bi mat dañu waxante dëgg il faut nga muñal ko jàppoon ni kii sa way jur bu jigéen bi la jur la lu la sa bàyyi jëkkër wax wala lu la sa yaay jëkkër wax ba tax nga ni duma ko dégg wala duma ko fa xaar wala su ma defee ma def ko sa yaay wax na la lu ko raw wala sa baay wax na lu ko raw te génnoo kër ga. lan moo tax góor ñi ragal seen seen seen kër goro yi. waaw ci euh, goro yi la. ci mhm. ndaw si la. Mhm. luy problème bi ba nga xam ne léegi ku jël jabar ci kër. Mhm. keroog nga fay géej. waa xam nga xam nga xam nga xam nga euh, Oustaz Makhtar. des fois ànd mu ngay naqaree ca tàmbali ba des fois. ànd mu ngay naqaree ca tàmbali ba euh, dafa am noo xam ni noonu lañ daan jëlee jabar te lu ci baree bari daf cee wàññeeku mm-hmm. euh, kocc ba nga xamee ni dafa war a euh, toll ci am soxna doom ji dafa toll ci am soxna mm-hmm. ni ko dama bëgg soxna daf ko ni dégg naa la ba ca déwén sa ñuy bay ba tollu fa ñu tolluwaat doom ja waxaat ko ko mu ne ko kon yitteel na la heure bii daaw waxoon nga ma ko ne ko nañ wure ñu mm-hmm. toog di wure kott samp ni ko jabar dom ji samp ni ko ab goro mu ne ko wax ma fan ngay bëgg ma ñaanale la kon yow kat xam nga kan moy jabar ju bax ndax jabar ji bax wala jëkkër ji bax fa mu def ci am solo oustaz bastar nit bu fekke ni dafa gis xala bu jigen mu nop ko yalla moko def nobel kenn du ko mu bëgg ko jël soxna waye nak mu def investigation yi war xol ki fa mu fan la kan moy ndeyam kan moy bayam ñom ban façon nañu ba mu leer que ni mën naa def ak ñoom mu doog dugg ci moom du fa gëj loolu benn fànn ci. Mhm. beneen bi ci des wolof dafa wax ni ku fen sa kër goro gëj fa waaw. <laughs> sa kër goro gëj fa. ah bon ku fen sa kër goro gëj fa waaw. ah benn bi indi bi ngay ñëw di ñaan si ndaw si. Mm. yow ñëwoo da ñëw indiwaale leneen lu nekk ci yow. Mm. ab nga oto indi. fent nga fooy liggéeyee. waxal nga sa bopp lu nekkul ci yow. Mm-hmm. ba ñu may la. nit mën naa fen ba am jabar waaye fen ko ba yor ko terit say goro nag moo xaw a jafe. <laughs> nit mën naa fen ba ñu may la. Mm-hmm. waaye ko ba yor ko teral ci sa ay goro. Mm-hmm. jafe ndax fen ay neen la. loolu dinay bokk ci liy waral nit jël soxla ci béréb ba pare dootu fa jaar. ndax na mu fa jëlee soxla ak yam fa digg la. dinay am itam loo xam ne jikko moo koy def. xam nga nit. bu fekkee nii dafa yaakaar ni heure bu gisee nit koo xam ne teraanga dafa war a dox seen diggante rek war naa yëkkati jox ko. jikko bu yàlla di def ci nit. kooku heure bu amulee lu mu joxe man na faa gëcc. des fois dama koy wax. kersa kersa. dama koy wax damay wax ni. maanaam bëgg la dem kër gorom ak loxoy kese. moo tax c'est à éviter. ok c'est lu la yàlla mën a mën a mën a maye mën a gan. bul def heure boo demee sa kër gorom heure boo ko gisee rek yëkkati dara jox ko. parce que am dafiy nekk ñàkk dafiy nekk. waa ñu ñu jël kooku am day am ñàkk day am am na ñu jël uh, ku ne uh, ku ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na def. yaa ngi am jàmm. <coughs> maa am jàmm bu baax baax. yaa ngi déglu waxtaan wi. waaw maa ngi déglu waxtaan bi. ah bisimilah yow la ñuy déglu. ah tey ma maa ngi lay nuyu baax. <laughs> kontaan nañ nga ñëwaat ci plateau bi ndax dañ ñuy manqué. <laughs> maa leen nuyu nit nekk plateau bi. jërëjëf. waaw Ousmane Ousmane Matane xam naa yow moom la ñuy xeex ñun ñun ñuy sëy ci kër yi moom la ñuy xeex tuuti. da leen defaral yéen laa faral de. <laughs> xam nga sa morom yi dañu dañuy xaw a kii rek. <laughs> waaye ñun moom lu lu métti ànd lu métti ànd ñun sëy sëy nañ ba sonn. Mm-hmm. waaw ndax ñun li mu wax ñun ñun ñooy dee ci kër gi ñun ñooy mottali dépense yi. Hmm. ñun ñooy teral goro yi te yéen nag yéen dara doon nañ ko jox suñu waa kër. Hmm. man nag looloo ma jaaxal moom. Hmm. yéen junni boo leen ko defee suñu parents fa yaakaar ngeen def ngeen lu rëy te defoo leen fa dara. ah est-ce que du premier cadeau bañ laajoon a foor ba tax. jeexagul waaye mais premier cadeau ñu yebbil nañ leen ko. yéen ah. boo ñu joxee 500000 yebbil nañ leen 1 million. ah d'accord d'accord. ah kon nag ñun ñun ñun nag wax dëgg yàlla jël sa doom may ba pare soo naat yi nee naa leen ku jur doomi jigéen yaa perte. Hmm. ndaxte yow yaay maye sa doom. Hmm. di may joxewaat sa alal. sa hmm. doom buy liggéey lu mu kii wax naan sa jeeg buy liggéey sa sa sa kii ngay liggéeyal say goro. dëgg la de. est du seen yaayee ko sóob bi ñoo ko war a naan. ah ñu suñu yaay luñ sombi nag ñun suñu yaay sëy loolu ñu doon def ku ci mel man sama yaay li nga wax naan ay ay woote. Hmm. man sama yaay dina dinaa toog lu man daanaka un du ma dégganteeg moom wala wala su ma dégganteeg moom dama koy walaaj ko jàmm yaramam. non sa yaay bokkul ci yaay whatsapp yi yaay whatsapp yi la ñuy wax. <laughs> sa yaay kay kuy toog un taxul ki nga xam ne loo togg mu xam ko. Euh. loola sa jëkkër jox dépense nga wax ko ko. loolu moom jé jéeg di ko def tam ñoo ngi ci erreur parce que tam boo jëlee sa yaay dugg ko ci sëy ba mu ëpp tamit. Mm. sa sëy du dem ndaxte yaay ak doom dañoo jege. dëgg la boo ko waxee tey ji am na loolu la naqar rek sa sëy dem tamit day métti trop ci moom. Mm-hmm. man boog sama yaay man mu saxam sama lu ma métti sama sëy wax dëgg yàlla. Mm. yàlla moo ma tiim te moom laay seere li may wax. Mm-hmm. man nga fa yàgg lool te am fa lu baax de. fu mu toll nii da yaakaar ni man aw dara lu ma naqari sama sëy te moom tax hmm. hmm. ma koo am wax sama goroom a gën a wax ko sama yaay wallahi azim ndax xam naa ni man sama yaay bu ma ko ko waxee xam naa xam naa fu mu toll ci man hmm. dina am lu ko naqari dina am lu mu yëngale tam sama sëy te loolu ma ko nangu tamit ndax maa bëgg a sëy waaye ñu sëy nañ ba dee lu lu soxla jaar a wax dañ lay jox dépense mille cinq cent ne duñ lekk mbaxalu ngoon est-ce que ñu ne ñu ne da di constipé duñ ko lekk <laughs> seeni doom ngeen di utal ganaari ëllëg rek <laughs> nga dee bay ba nga dee nga war a jënd sa sa sa kora ngi yàmbat sa wet hmm. naan man de sama amoon VIP hmm. mu leer leen ko koy dëkkal da koy bëgg a jox ko mu sol ah waaw sa jëkkër nga koy laaj rek. mu ko joxul sa jëkkër. ma hmm. yow man sama wéy bàyyi ñu waay. léegi yow lan ngay jàppale lan ngay jàppale sa jëkkër. loy jappalé sa jëkkeur ci sa côté wayjur pour mu jege leen bu len sori won pour mu fay dem bu fa dawul dem pour mu len di wo bu len dawul wo lo len di jappalé loy jappalé sa borom kër ci lolu ñun dañuy wax bayo nga diem mhm. comme ci pour muy woo yaayam ak yooyu wa pour muy wo sa yaay wala mu koy mu fay dem sa papa man mhm. xola damay wax bay bëgg a damay jara xulloo yeen fa damay xulloo mer mer ko meru ñaar fan waaye damay xam li tamit boo ci boo ci waxee tamit bu yàggee tamit dañ naan du farata. loolu lañ lay wax de. naa la du farata suukar bu jotee nga daal ne man damay obligé man jël sama xaalis jënd jënd yónnee sama yaay ne ko sama jëkkër ko yónnee suukar koor. ah da ngaa bëgg sëy yow bu dee bokk ak génération caapa ñaama bi may wax. mais nag dañoo bëgg a sëy mais nag goro itam nañu jàppale. d'accord. góor nañu jàppale yéen ñi ñu tamit ndax yéen wala tax da ngay faral gore da nga fundoon dañ naan <laughs> non gore yi gore yi il faut ngeen comprendre leen ay mag lañ quoi yéen it ëllëg da ngeen di dooni goro hmm? yéen da ngeen di dooni goro ëllëg xam nga léeg-léeg boo leen di jàppale dañu yaakaar da leen di kii fekk kamaata eh, diinu tuddaanu Oustaz Makhtar <laughs> ah. Euh, man je suis pour que ni euh, ji xale yi jigéen yi nañu nañu sey mhm. bàyyi xel ëllëg mhm. mooy li ma waxoon keroog rek ne yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ku teral mag mhm. yàlla dencal la gone gu lay teral bis boo amee at bi nga mais tamit waajur yi nañu xam ne la ñuy jëflanteeg seeni goro seeni jabar yi doom lu malaaka yi di bind la léeg-léeg nga gis nit koo xamante ne xam nga arab bayt ba mhm. wa aynu rida an kulli aybin kalilatun kama anna ayna suxti tubdil masawiya mhm. gis nga bëtug ngërmaane mhm. tey su ma bëggee meer caama bëgg tonton Omar lu mu def gong lu mu def gong mais su fekkente ne am na bët bu ma koy xoolee su sëqatee sax mu ne damaa bëgg dafa bëgg a def microbe ci biir ceeb bi moo tax mu sëf rek mm-hmm. mm-hmm. léegi-léegi am na yenn goro yoo xamante ni taxawaay boobu lañuy ñuy taxaw dañuy fàtte ne ñoom tamit lépp lu ñu jëf jàmbur la ñuy jëflanteel bu ñuy amel ak d'accord ñu jël ki ci liñ bi del siwaat salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaw ku baax ñu ngi ziar allo ñu yàlla ko yàlla nangu waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. yàlla na ko yàlla nangu. waa di rafetlu émission bi rek. Mm-hmm. di wax am na solo trop. jërëjëf. dëgg yàlla dafa am lu ndaw si wax léegi. Mm-hmm. waa dama si d' accord ak moom quoi. parce que mm-hmm. comme dafa wax comme problème yi muy dund. mais xam na ne warul génn kër gi. parce que. Oh, dem na ki woote léegi la doon wax ne mhm. day mujj préféré li ko mhm. metti mu koy waxtaan ak gorom mhm. bi ci biir kër gi defe naa moo jumul woote woon na semaine bee passé wane ne dafa jubook gorom loolu boo échappé euh, xuloog sa goro sa yaay moom ngay mujj wéeru waaye tamit <laughs> am nga gis nga néegu néegu néegu sëy d'habitude bu ñuy yàpp bu ñuy yàpp soxna dañ naan ko bis boo amee lu la naqari si sa biir sëy ka koy njëkk a di si yàlla la parce que dañ naan la jëlal sër mooy sa can li nga koy jëndee koy julli sa ñaari ràkk joytu borom bi subhaanahu wa taala mm-hmm. mooy ne li xew ci mbiru biir néegu sëy lu muy gën di génn rek problème bi gën a yaatu innama asku bathi wa xuzni ila allah samak njàmbat samak naqar ma ngi koy ki xam nga ñun ñi jàng arab xam nañ alxuznu mm-hmm. fi l qalb wal kaabatu ala al wajhi mm-hmm. naqar bu nekkee ci xol Euh, moom la ñuy tuddee xusn te d'habitude ci biir néegu sëy moom mooy gën a sonal li nga xamante ne mooy jigéen mm-hmm. xam nga boroom xam-xam yi dañuy wax ne jigéen d'habitude ci alquran booy jàngaraan allah tahzani mm-hmm. xusn la ko yàlla di dàqal parce que euh, naqaruk sëy buy feeñ ci kanam mm-hmm. moo gën naqaruk sëy bu nekk ci biir xol bu nekkee ci biir xool dafay jur go jur nit ki nit ki di jeex Eh, eh, amna na ku dikkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw soxna si na nga def. maa ngi si jàmm bismillah ya ngi de TV Ndenkaane. wa fan yëpp may seetaan seen émission bi mu intérêt sama top mhm. parce que li ñuy dund ci kër yi ñun goro yu mag yi. Mhm. yéen goro yu magi yi. goro yu kay goro bu mag woote na. li dul jëkkër mais. jaama mii nee naa topp ko lool mais. Mhm. day encourager xalé jigéen parce que man maa ngi sama kër yor sama goro sama doom bu góor. Mhm. sama goro day nelaw ba 11h. Mhm. mu yeewu jënd ñaari nenam. <laughs> omelette fag ci néegam. du togg du yàq ne day liggéey su wàccee teelee wàcc sax seen kër lay jubal ba ngoon ba jëkkëram wàcc fekk ko fa jëli ko kër yaayam bu dimanche. mu nelaw ba 11h mu yeewu bu ko neexee togg añ bu ko neexee du togg añ. Mhm. dem kër yaayam toog fa ba guddi ba ñu tëdd jëkkëram dem jëli ko yéreem ak jëlee jëkkëram bu tilimee kër yaayam la ko yóbbu fa la koy fóotijee mhm. faalewu ma daal laa mën a nuyoo daal la séq ak man mhm. euh, lan moo jiitu loolu da ngeen a mos a xuloo wala da ngeen a mos a am problème mos a ñëw xuloo xuloowu ma moom musuma xuloog moom man dama ko jàpp ne yaayam xanaa moo ko sant loolu mhm. parce que sa doom bu dee sëy danga war di ñëw ca kër gi di nemmeeku nu mu fa tooge yaayam mën naa toog ñaari at du jaar ci kër gi du la woo téléphone mais doomam sax jour mu ngi dem sa heure bu ñëwee nag gën a yokk comportement bi juba man ne yaayam xañ na loolu la ko digal mhm. xañ na loolu la ko yaayam digal te jëkkëram est-ce que yaayam yëg na ko ndax yow tamit woo nga yaayam informé ko ni muy dundeek yow. Mm-hmm. yaayam woo naa ko ci kër gi ma taaj ko taaj sam sama jëkkër toog. Mm-hmm. sama jëkkër sax moo moo ko woo téléphone ni ko dama la soxla ñëwal. Mm-hmm. ñu tracé ko doom ko ni ñu sëyee ci kër gi yépp mu ne man de sante xool wax a wax a wax lay mais taxul doomam dañ. ndaxte sama doom ba mu ciy dugg ñépp nee nañ kooku yaayam yaru ko parce que moom benn la ci yaayam. yaayam yaru ko yar bu baax. Mm. noonu la ko yare bu muy doog a ñëw si kër gi sëy damay xëy di bale di fobeere defar ndékki ma ngay nelaw. Ah, mm-hmm. ma nga tëdd di nelaw. Mm-hmm. ne seen kër mu ne sama sama benn doomu bi ma am man da doon jàng day yeewu fajar balaa dem école mooy bale mooy fobeere raxas ndaw bàyyi ma ci kër gi ma taalañ kooku dama ko ma jàng moom moom moo doon jàppale si léegi sama am na sama doom bu góor boo xamante ne bii bu muy surtout ba muy soutenir moom ci kër gi de day yeewu suba teel baleel ma fobeereel ma raxas duus bi doo ko dem eh, eh, def kii num te fi mu tudd fi mu war a eh, bind teesam da doon boobu da doon bind mémoire am mm. doo ko dem mm. tey bu mu bu defee dara ma kalaame ko ca këram jëkkëram ma ko waxee mu ne ma nee deful loolu. Mhm. loolu la may xam de. Mhm. du lijjanti sax lu jabaram def danaa ma nee deful loolu. Mhm. moo tax léeg damay déglu émission yi sama xol day jeex ma ne ñi dañoo dugg ci kër yi ba waaw waaw waaw am na solo macha allah solo. Eh, est-ce que du tamit dafa dafa ñëg maanaam dafa ñëw ngeen jël liggéey bi yëpp. accaparé ko wax dëgg xale jigéen sëyuñu seen yaay yi sëyloowuñu leen mm-hmm. wallaahi li may wax ni mën naa koo dóor sama loxo ci kaani mm-hmm. sëyuñu seen yaay yi sëyloowuñu leen ko ci dóor <laughs> waaw bu ko ci dóor lay benn pàq la bu ko ci dóor <laughs> waaw da di yàq xale yu jigéen mm-hmm. xale yu jigéen yi sëyatuñu sëyatuñu bari na ci boobu man de bi ma yor nee naa lii su ma doxoon ci àdduna ba ne bañ ne am na ci kër dama naan amul su ma ko dund woon su ma ko gisee dama naan amul su ma ko su ma ko déggee dama naan lii amul su ma doxoon ba ba bañ ne ma lii gone gu jigéen dina ko sëy ci man na loolu amul. Mm-hmm. ma yaakaar ne loolu amul yedd leen xale yu jigéen yi moo gën gën di yedd waajur yi. Mm-hmm. ku ku ku ku sëy nekk sa borom kër ngeen sëy lu ëpp 40 ans. Mm-hmm. nga jur say doom. xam nga ni sonn nga ci sëy. ñun root nañ ñun dëbb nañ lu ne def nañ ko. ba nii ma taxaw di wax ak yéen yoonu màtte wàcce bu mag toog ak yàq. ba fii ma toog di wax ak yéen. yoonu marché ak togg ak yàq wàcceguma te mhm. mu ci kër gi bu xëyee sangu ba set gàddu saagam dem ne day day xaw ma day jàng man xaw ma sax lu muy def xaw ma sax lu muy ko yenn saa ah, neex na jëkkëram ah, dëgg dëgg kooku day sëy ah, doy na ah. day na waaw moom moom moom yaayam yaru ko waaye yow day sa doom bu góor it déggalu la de. joxu la cër mu ngi sama la cër de waxtaan ak moom doom bu góor laa mere. parce que mm. dama sonn ci moom. waaw waxtaan ak moom ko yóbbu mu ngi leen deful lool. waaw. Mm-hmm. dama moom. rek. tey ñaan yàlla tebul xeex tebul xuloo. sonn na ci ma sonn naa ci moom déggu samay wax parce que dafa jabaram dafa mel ni ku ko gëmewul da koo nopp rek da koy comprendre te waxtaan na ba sonn nee na ko sa diggante sa jabar moom du ci dugg mais sa jabar ji ni nga bëgg a dundee moom sa yaay am lu ko metti te amul kenn ko faj yow mi ko war a faj yaa ko ci encouragé jàppale ko ci bu ëllëgee du baax ci yéen mu koy faj eh, bu ko ñaan yàlla ñaanal leen yàlla rek lu baax man kay ñaan mu ko yàlla mais naa ne moom dund dund gu metteeg man mais yàlla dina la indi leneen mu ñu rek danañ ci danañ ci danañ ci gën a ñoom maam jaaraa ngi fi oustaz Mouhamad eh, tonton. Eh, bu ngeen dalee pare nag di leen sedd gu rey. d' accord. <laughs> faral di ne man defaluma fóota lu ma paase lu ma baale xamu ci man dara sax. xaw uh-huh. nuyu taxaw sama buntu ne nuyu ma la am. yan saa yi moo ko la ca suba ndax bu ko neexee seen lay dem toog ba ma muy soog a sa dama koy jëli. sama maa ngi moom dëkk ci kër gi waaye li ñuy gisee maa ngi moom bëriwul. Mm-hmm. d'accord moom nag def ma moom leen. d'accord yaa booy jërëjëf ba mu fi taaloo doomam. Mm-hmm. di wàcc xëy doomam di wàcc di dem. Mm-hmm. maay boot maay sang. sa sët la sa sët la c'est normal. sa sët la lépp mm-hmm. ngir jàppale ko rek parce que xale la te damaa jur ay doom moo bëgg sama doom. mais mu mel dem ba di ma wan ne ma li ngay def par force la sañoo koo bañ. <laughs> te nu ma neex laay nekk ak waaye xam naa bañ koy ngénte rek gindikal nga àdduna daal di koy lalal daal di koy. tàgg daal na ko xanaa ah. ndax wala si war a ñëw. xalaat kii de xalaatuma sax. mu <laughs> baleel ma sama néeg ba di ma lalal. lu <laughs> ma koo xamante ne bañ na ko ba sa yére jëkkër bu tilimee da nga koy yóbbu koy fa fa lañ la utalee fóotkat fa nga koy fóote. Mm-hmm. baax ne yaay booy jërëjëf waxtu yi moo moo ñu moo ñu dab <laughs> jërëjëf. waaw mi ngi noonu a ah, waaw li ñu naan tungu ne du teew ñu ne taal. cri la. léegi ñu mel nii ci biir kër yi. léeg-léeg mhm. bu ñuy bu ñuy tudd goro yi. Mhm. defuñu dara ñu yaakaar ne goro yi non defuñ dara. ak mhm. ah, gis nga kii ah, dafa fippu na ba woote. mais am na goro yu mënta woote tamit. dëgg la tonton Cheikh Omar sa ndénkaane nga joxe waale ko ak lan ngay dénk. xam naa lu sax damay bàyyi maam jaar lu muy wax ak sëram boobu nekk ci kër gii si. waaye lan ngay dolli rek dénkaat ko goro bi pour mu gën a mën a uufaat gën a uh, a jubantiwaat li may dolli eh, dégg ko gor bi moo di situation yi mel ni muy dund dana poussé léeg-léeg euh, goro bu jigéen bi jur jëkkër ci biir kër gi mu dem ci loo xam ni wala mu def loo xam ni wala wax loo xam ni bu ëllëgee si biir kër daf koy réccu mm-hmm. bu ko ci loolu lépp fekk benn sara xoole daf maa waxoon ne ma ñaari baat rek laa dégg ci olof ma ne ko ban la mënu ma lu waaye def boppam ma ne ko li nga ci dégg doy na <laughs> waaw ma ne ko li ci dégg doy na sëkk baat boobu oustaz Maxtaar tant que nit gëmu ko du maytu mbon waa Résilé la ñu jël dernier appel. ayca <laughs> salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi ñu ngi leen di ziar. yàlla na ko yàlla nangu. waaw ñu ngi nga tënk waxtu wi cate naa. ah. ma ne nga tënk waxtu wi dafa cate. waaw wax nga mhm. bisimilah waaw. moom crédit ba tënku na faat. waaw dafa mel ni dafa moom nag. waaye suba incha allah suba day wéy ñaari a dara yàlla yombal bu suba kon léegi moom yaay xale bu koor boobu li koy digal rek euh, mooy euh, ab julli tamit yàlla daf koy nattu euh, xale bu jigéen bii nekk ci biir këram doomam bu góor indi ko fi na ko jàpp rek nattoom nattu nag waykat bu dafa waxoon ni moo di karkaraaru ayu yaayu mhm. ku weddi laajal xayru lan biya kañ mu saaka kañ mu saaka na ko jàpp ni nattu rek def ko ni doom bu mu jur leen rek laa koy diggal nag xale bu jigéen boobu ñu indil ko ci biir kër gi bu doon doomam la bu mu ëmb matu ko lu ma ko mën a def ci këru àddina lu ma ko mën a wax ci këru àddina du ko boddi du ko sànni du ko yàq du ko ñaanal yàlla du ko yàqu la mhm. fexe itam doomam bu góor mu téye ko doom ji góor ji tamit lan lay responsable très bien naa ci ñëw doom ji góor ji nag doom ji góor nag damay wax ni très souvent waxtu yi xat mais léeg xale bu góor bi nekk ci biir kër gi am jabar ñetti jigéen seexu ko dafay daal di jaxasoo benn tàcc yu jigéen ak yenn complot yu jigéen rek xajul ci bopp góor ñett yu jigéen ñi nga xam ni kii yaay la ku ne xam na ni kës laay la ci doom hmm. kenn rek la kii di ab jigéen ku ne xam na ni nit ak càmmiñam du wéeruwaayam la hmm. kii di jabar am nag relation yu bokkul yoo xam ne kenn ku ne da nga ko séq ak moom yaay ku ne xam na ni doom di mel ci moom sa jigéen tamit sa jigéen la waaye nag nopp sa jabar hmm. léegi nag mu jur coono kon kooku li ma koy waxal moo di lu mu nopp nopp nopp jabaram fexe ànd ak moom ci dëkk lu ko mooy ëllëg si bi dina ëlbatiku attaque ko moom mu tegu ci kawam te fekk na boobu dafa seetaanoon lii ba mu agsi ci moom. d'accord waaw. d'accord waaw kon sama ndénkaan daal mooy <laughs> jërëjëf sama ndénkaan daal leen rek ne. <laughs> Mhm. sëy yombul. Mhm. dëkk yombul. Mhm. ñaari ñu jafe nag mënoo caa nekk bëgg lu yomb. d'accord ñaari jafe mënoo caa nekk bëgg lu yomb. mère Thiam luy seen ndénkaane. ci dénkaane maire bi li wax sax man dama ci xaw a rus mhm. dama ci xaw a rus vraiment wax dëgg yàlla dem ba yërëm damay dem sax ba yërëm ko mhm. ndax ku xool doom ni mu méttee mu ngi la goro mu lay def loolu mhm. vraiment métti na moom xale say 40 ans ba léegi yaa ngi am ba tey gay dem marché di am na nag ñoo xam dañ naan kenn ma demal marché de nekk ca marché ba kii moom dégg nga situation dégg naa may ma ko ñaan yàlla na gorom bi suppeeku te ko ci yoon xale jigéen yi sëy ma leen wax ngeen defaraat seen toogaay ki ngeen fekk ci kër gi seen yàlla ndax sa yaay dina la wax loo xam ne da nga koy supporté toog fa kon góorgóor leen ngay sëy ma ngi nuyu sama góor ndax man ay góor yu bari laa <laughs> yow mi sama góor yëpp ñu ngi baax sama góor yu góor yi ñu ngi baax jox ma sama cër macha allah mu El Hadji li Mercedes ak euh, Malick Diop ma rew ma leen ak sama goro yu jigéen ñi ñoom Faat Bintu ak ñoom Maam Sofi sama góor yoo jox ma sama place loolu teg ma sama place tàggoo naa oustaz mais dégg may may wax li tuuti rek waaw damay ñaanal sama way jur ko àjjana. amiin yaa wax ni dama indi sama soxna. Mhm. ñëpp a ngi may dégg. mu mhm. am fukki at ak juróom mhm. sama goro ñaar fukki at ak juróom-ñaar mu dégg génn suuf te kenn mosu leen atte. mais dama wax sama soxna ni ko góorgóorlu nga de. mais wallahi sama personnalité yaay la. d' jërëjëf jërëjëf jërëjëf. sa euh, euh, waxtu yi nee na pëng lan ngay lan ngay dénkaane waaw Oustaz li may dénkaane rek émission bi nag di leen ko def 4 heures de temps wax xam wax li nga war a wax faaw nga ma war a wax yëpp waxuma ko a la wax mooy ah. góor mm. na góore gis nga sa jabar mm-hmm. lu mu def sa yaay ci yow la ko gis dëgg la boo takkee jigéen danga naan andi lu ma leen jaam waaye andi lu ma leen buur mm-hmm. te waajur bàyyi leen ABCD bii ngeen di jàngal seen doom. ndax booy jàngal sa doom ABCD ba dee fekk ko ca day nga sonn. du xale yi bu alxuraan jiitu ci ñoom. ñu yar leen ci diine ñu yar leen ci diine. rek. Ah. diine mun na defar lépp. d'accord jërëjëf jërëjëf maam Diarra maam Diarra waxtu wi moo pëng. waaye xam naa yow faaw nga dikkaat Oustaz Mouhamad. Eh, sa ndénkaan defaraat jikko yi. Mhm. sa jëkkër day wutee aljana. ci yaayam yow ngay wutee aljana si sa jëkkër mm. jàppaleel sa jëkkër pour mu am aljana ci yaayam ndax yow nga mun a aljana ci moom macha allah ndénkaane boobu loolu ndénkaane tënk na mm. sa jëkkër day utee aljana ci yaayam ngay utee aljana ci sa jëkkër mm-hmm. jàppaleel sa jëkkër mu amee aljana ci yaayam ndax nga mën a amee aljana ci sa jëkkër loolu tënk na lépp jërëjëf Oustaz Mahamad waaye ñu jeexalewaat di ñaanal benn baas ci eh, bisam bi dellu si yàlla defal ko njéggal ak yërmande mm-hmm. woyofal suuf ci kawam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 sportive revient sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront au rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les armes